avec euh, notre panel euh, d'invités notre invité de ce soir nag moom dëkku fi ah euh, en tout cas il n'est pas basé à à, à Dakar euh, c'est un ambassadeur il est ambassadeur euh, délégué permanent Euh, du Sénégal auprès euh, de l'UNESCO euh, mu nekk foofu nag di officier à l'UNESCO depuis 2017 il est également le président des ambassadeurs africains donc loolu moo waral de dafay ñibbi donc on a programmé cette émission exceptionnellement avec lui Souleymane Jules Diop nag avant de quitter le Sénégal il a eu a occupé plusieurs postes ministériels euh, en 2000 en mai 2013 euh, il est nommé ministre conseiller euh, en communication du président de la République Macky Sall poste boobu nag yàggu na yàggu fa mais nag bokk na ci ñi nga xam ne ci rare communicant président yi nga xam ne le cercle des médias nee nañu nag il il fut un très bon Euh, communicant indi woon na li nga xam ne euh, moom mooy touche am il a été il a remplacé à ce poste d'ailleurs euh, El Hadj Kassé mi ñu nommé woon au niveau de la francophonie après ça ñu yóbbu ko en 2014 euh, ci gouvernement bi euh, mu nekk secrétaire d'État en charge de Sénégalais euh, de l'extérieur l'occasion faisant le larron daañu mën a aborder ak moom te am na lu mu si xam bu baax problématique bi maîtriser na ko la problématique de l'immigration clandestine am na ay instruments yoo xam ne État du Sénégal tegoon na ko pour faciliter encourager le retour des Sénégalais de l'extérieur ak ay programme ak ay fonds euh, où est-ce qu'on en est pourquoi euh, programme ak fonds yooyu euh, n'ont pas permis d'endiguer le phénomène le fléau de l'immigration clandestine dinañu jox li nga xam ne moom mooy sa sentence en 2018 en août 2018 il est nommé Euh, ministre délégué auprès du premier ministre en charge du PUDC euh, PUDC nag nekk un important programme boo xam ne euh, tey bu ñuy waxtaanee euh, bilan wu président Macky Sall PUDC daf si am wàll bu bëree bëri PUDC nag dafa euh, indi rek lu ñuy wax équité Euh, dans le développement euh, lu ñuy wax euh, territorialisation des politiques publiques euh, indi désenclavement mu nekkoon programme bu am solo bu yaatu boo xam ne dafa waroon rek permettre de résorber le gap des inégalités des, des, des entre les capitales euh, régionales bien servies en, en infrastructure en eau en électricité en divers programmes ak les zones rurales profondes PUDC ci àll bi xam nañu ko Euh, xamatuma kan la mais an am na sax candidat bu ma invité fii mu naan moom euh, li ko gën a ci li nga xam ne euh, moom mooy le bilan du président Macky Sall mooy les infrastructures mooy les réalisations du PUDC donc PUDC boobu la des ba Kerba mu jóge gouvernement ñu nommé ko mu nekk ambassadeur en 2019 fële nga xam ne moom mooy UNESCO moom nag il a eu plusieurs vies et j'y reviendrai Euh, à l'accession du président Macky Sall il était euh, chef du bureau euh, économique de l'ambassade du Sénégal à Bruxelles euh, notre hôte du jour est également euh, journaliste même s'il a euh, quelque quelque peu rompu les amarres avec le métier il est également écrivain chroniqueur et le plus célèbre animateur de blog on y on y, on y reviendra je sais pas ndax bëgg na Euh, ñuy dellu si euh, sur cette euh, sur cet épisode là mais bokk na ci sénégalais yi njëkk a créé un bloc di ko animé depuis l'étranger en ce moment là il était au Canada juste rappeler que notre invité a été chargé de com du premier ministre Idrissa Seck c'est à la suite des dissensions de la guéguerre Idrissa Seck Abdoulaye Wade euh, qu'il a migré vers l'extérieur et pour se faire entendre il animait régulièrement des chroniques quotidiennes très suivi et très euh, très attendu alors on va waxtaan ak moom nag euh, waxtaan bu yaatoo yaatu euh, donc en aparté avec euh, Souleymane Jules Diop l'homme aux multiples vies il a eu de multiples vies euh, ce n'est pas voilà il a été journaliste ministre conseil de euh, de communication il est écrivain donc l'homme aux multiples vies qui souhaite le report ce qui serait la de la présidentielle de 2024 est-ce qu'il est toujours dans cet objectif-là alors il nous en dira donc dañuy tàmbali li nga xam ne moom mooy notre échange du jour alors euh, il me précisait euh, l'idée euh, autour de ce de ce de ce report là euh, mais dinañ ko jox euh, l'occasion de s'en expliquer alors Souleymane Jules Diop bonsoir et bienvenue. oui bonsoir Maïmouna. <laughs> c'est un plaisir comme toujours. de recevoir les les les les les confrères là. ah mes de la de la presse. et j'espère que tey dinañ waxtaan waxtaan bu yaatu. waaw moom moom laa bëgg sax. et puis bu dëggu. moom laa bëgg. ayca nuyoo la gars waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu say auditeur sama mbokki Ziguinchor yi Casamance nga xam ne soo ba léegi ñu wax yaa ngi yaa invité Maïmouna bon émission télé bi ñu ngi koy suivre déjà euh, ne émission bi aussi euh, nit ñaa ngi koy suivre. ci Casamance lañ may woowee ba ci sama village u maam sax woo nañu ma. Ah. ñu ngi xaar émission. <laughs> Thème Udielou bonsoir alors euh, Souleymane damay attaquer directement avec le report alors j'ai envie de te de te démb en communiqué du conseil des ministres le président de la République Macky Sall dafa procéder à la convocation du collège électoral loolu bu amee ça veut dire que finito xaala gasi ah euh, le processus euh, il est il est il est lancé Abdoulaye Sow que j'ai invité ici d'ailleurs me faisait remarquer que le président il avait jusqu'au 6 pour le faire mais il l'a fait peut-être une façon euh, de de de taire euh, toute cette polémique autour d'un possible report une façon aussi de rassurer euh, les Sénégalais et la communauté internationale alors vous parlez toujours de report ou pas euh, Maïmouna maa ngi lay sant émission bi euh, parce que Sénégal léegi wax fi dafa jafe moo tax sama wax bareetu boo waxee nit ñi dinañu interpréter ñi dagg yóbbu <laughs> ñi dagg lu leen neex yóbbu ba mujj gi manta li nga wax day réer li nga wax day réer ci wax yi dafa am solo hmm. li ma wax ci français laa ko waxee ni may waxee français nag laay waxee wolof heureusement Euh, boo dégloo bu baax par précaution ngir sama wax bañ a nit ñi bañ a laam-laame benn yoon li ma wax dama ni journaliste bi je m'interroge dama ni ko je m'interroge sur les conditions yi nga xam ne maa maanaam maa ngi laajte ci nu nga anam yu nga xam ne ci lañ war a defee élection élection bi dinaa ci dellu siwaat ñaare bi ma ne li may wax ni président àndu ci loolu wax naa ko ci émission bi ba mu leer ma ne président àndu ci ndax président dafa ne benn at ñaari at wàññi benn at yokk benn at ñàkkul ñoo xam ne tam nañ seeti ko ne ko ah dëkk bi ni mu mel kat na ñoo xam ne ba tey ji may wax ak yow lu ñu gëm ne président Macky Sall am na ko fi ñëw wax ko ci sa émission te du dof wax ne Eh, situation bi ñu tollu war nañoo créer condition yoo xam ne président mi nga xam ne dafa wax ne dafay dem war naa mën a toog tuuti ñu gën a réorganiser mbir mi nun eh, su ma juumul mën naa ne jàll nañ ci ñu ngi ci premier décembre jamono ji juróomi at ci gannaaw ci la ñun la investire sunu candidat Euh, même en 2012. ci la ñu 1er décembre aussi la ci investir sunu candidat. parce que mhm. dañu ko doon tombeel même semaine bu ñuy fêter anniversaire u APR ci la ñu doon organiser sunuy candidature sunuy investiture euh, léegi nag man xalaatkat la euh, xalaatkat la mooy sama vocation bi njëkk. laata may def leneen dama jàng philosophie interrogation laajte laa njëkk jàng balay may jàng tontu te laajte boobu moom mooy sama métier moom mooy sama liggéey ndax li ma def muy journaliste yi tamit laajte la rek laajte xam xamale euh, léegi nag ma jàpp ne ki nga xam ne moom la ñu yor moo ne ci boppu réew mi waruñu koo tëj ci benn choix bi ñuy dem nga xam ne war naa wax man maa ne ko président da ngay liggéey bañ a installer débat ndax da ngay présenter wu wala déet am na ñu ko séddee Mame bay wax na ko publiquement il y a ans ma ni ko nga bàyyi ba occasion solennelle bu nga xam ni mooy le 3 avril nga wax nga seet. di soog nit ñi booba ñépp prononcé wu ñu ñii ne d'accord nañu ñii ne d'accorduñu ñii ne mën nga ko ñii ne mënoo ko nga apprécier situation bi nga seet yow ci sa bopp nga wax boo dee dem fekk décider nga dem nit ñi jàppale la boo dul dem nit ñi xam ne demoo au fait temps boobu dafa retardé ba le trois juin 3 juillet 3 3 juillet ndax am mais yow 3 avril ban nga ko doon wax. 3 avril 2023 bi. même année nga ko waxoon mu wax. même même année. loolu dañ cee dañ cee waxtaanoon. du du secret bi may révéler parce que dégg naa Mame Mbaye wax ko ci ci ci émission bi. Euh, pour man président njiit ak kuy décider toujours dañ koy ubbil des fenêtres et des champs pour mu mën a décider kenn du ko enfermer ci lenn parce que de la coupe aux lèvres lu ne xaj na ci. lu ne mën naa am donc nun suñu rôle mooy ubbil ouvrir des perspectives pas seulement d'ailleurs pour président de la République waaye aussi pour Sénégal parce que Sénégal même bu ñuy élection même bu fekkente ne dañu wax ne masunoo dàq élection masunoo reporter élection Sénégal jar na ko loolu laa wax ci émission bi ma ne ndax Sénégal jaru ko journaliste fi ne ma ah bon ma ne ko je m'interroge lii laa wax donc président rôle am mooy le calendrier républicain fu mu toll ci pas-pas ci pas-pasam mu war koo respecter am dogal goo xam ne code électoral moo ko wax ne war na koo dogal mu war koo mu def ko du une semaine en à l'avance une semaine wala nu mu mën a demee président dafay tukki donc buy tukki sañ naa ne ministre de l'intérieur ana texte bi ñu doon préparer mu ne ko mi ngi nii mu ne ko damay tukki guddi damay tukki maa ngi dellu si fileeki fan waaye naa ko signe bala maa dem loolu président mi ngi ci rôlam encore une fois président Macky Sall bi muy wax li ci gën a am solo mooy damay sàmm sama kàddu dama wax ne damay dem damay dem àdduna bépp sant sant ko ànd àdduna bépp remercier ko ci waaye man en tant que sujet de droit en tant qu'homme libre nga xam ne ma la plus importante de des libertés mooy la liberté de penser et la liberté d'expression xanaa sañ naa même bu président waxee ne buggul lii wala d'accordul lii man ma interroger wu wax ne est-ce que lii xalaata wala du xalaat mais mais mais Souleymane dañu nekk dëkk boo xam ne nag may mun a Sénégal la tudd mhm. Euh, dafa am ñaari <laughs> dafa am ñaari baat yoo xam ni dañu jege woon lool bay laalante ah. ñaari baat ban ban gëm ak gëmm dañu jege wonte bay laalante Sénégal nag du nu gëm dañuy gëmm man na gëmmuma mais Souleymane damay xool di interroger léegi nag mais mais Souleymane xam nga sa interrogation yi xam nga yow da nga sànq bàyyi nga nga ne président de la dañ koy tijjil ay boulevard ñu koy jox ay possibilité moo tax bi nga ñëwee nga ne ne même si da ngay wu tout de suite suspicion dafa dafa dafa dafa dafa installé waaw yàlla moo ko teg waaw nattu la c'est-à-dire yàlla teg euh, sénégalais yu bari yaa ngi ñu ngi jàkkaarloog tableau bi ba ma ne woon tableau bi benn bind bi Euh, c' est pas carrément du bleu dama naan dama naan am na lu mu am am il a quelque chose derrière la tête c' est ça votre problème. donc quand vous vous vous de nga jógee bitim réew ñëw nekk ci réew mi lëmbe jékki-jékki nañu est ce que ñu reporter euh, présidentielle bi mais tout de suite les gens vont kii. ndaw bu ñu yónni la kii dafa nekk di tijji ti di di am na ko ma tudde naar bu ndaw sax ma ma ne ko naar bu mag laa nag <laughs> <laughs> nekkatoo naaru ndaw la nos suspicions sont sont sont sont sont bugguma ne légitime mais dafa am lu lu tax suñu suspicion yi fondé même man j'ai dit eh le gars il parle jamais par hasard non kii ñii ñii dañ bëgg a reporter présidentielle bi non je ne parle jamais par hasard waaw déedéet donc vous confirmez euh, ne parle jamais par hasard waaye nag euh, dama cultiver fa ma ne ak ña ma àndal ñu nangul ma ko une liberté de penser et parfois même une liberté de critique ñu nangul ma ko euh, nangul nañ ma aussi que ni en tout cas wàllu politique euh, xam naa ci xam naa ci donc su ma waxee nit ñi déglu et comme ni nga ko waxee jox sama kàddu dimension boo xam ne man dama dama dem ba xalaat ne xanaa xëy na noppi ma noppi nag moo gën parce que benn émission laa def ma yeewu vingt une ñu naan wax na lii wax na lii wax na li mais parce que dañ leen doon soupçonné. léegi euh, soupçon amu ci soupçon waru ci am. lu sax waru am. xam nga soupçon waru cee am. dagg bi yee jóge Paris ñëw du ñu soupçonné. saa yu ma daggee bi yee ñëw saa yu ma daggee bi yee ñëw nag may saa yu ma daggee bi yee ñëw. bu ma ñëwee wax <laughs> au moins y a un intérêt parce que débat du yàq dara du man maa njëkk a wax benn opposant moo wax bëriwul débat Boubacar Camara waaw Boubacar Camara moom dafa def tout un argumentaire ba ba ba ba ba la mise en œuvre de la transition ouais. non man man nekku woon ci transition man nekku woon ci transition euh, nekku woon ci loolu mais bi ma ko waxee juriste yi jóg nañ wax kan wu président euh, enfin en tout cas ñi ànd ak Amadou Ba am na ñu jóg wax genn wax mais débat boobu du yàq dara il faut ñu nangu Sénégal ñu nangu ne réewu débat la réewu démocratie la ñu démocratie nag lu koy dind dundal mooy xalaat yu wuute il faut ñuy am nangu xalaat yu wuute. xalaat yi dafa war a wuute mais soubassement bi dafa war a conforme au cadre euh, des principes démocratiques et républicains. c'est comme le débat euh, sur ndax président day dem am du dem vous nous faites adopter un référendum ñu apporter les changements ñu jël la question du mandat et de sa durée ñu jël ko ñu tëj ko frappé de la cause d'intangibilité yéen ngeen gaj sénégalais ngeen dem élection sénégalais yi renouveler leur confiance au président de la République le soir de l'élection du président de la République on se met à nous dire deux mandats de cinq ans benn mandat de cinq ans c'est-à-dire on est en république on a une constitution et puis vous installez le débat. Ah, ñu ñëw man ji. bien non majorité présidentielle de de de manière générale ñu ñëw ñu ne dañoo war a dem élection. élection présidentielle kenn mënu ko kenn su ko reporter dans ce pays la réew mi tàkkul administration mu ngi fonctionner douane police euh, nu mu tudd euh, impôt ñu ngi def seen liggéey nit ñaa ngi liggéey réew mi am na jàmm nekkuñu ci juin deux mille deux mille deux mille vingt deux deux mille vingt trois ñeen bëgg ñoo indil waxu report parce que yow vous vous estimez que euh, peut-être votre candidat n'est pas n'est pas n'est ah, pas prêt. ah déedéet loolu moom boo bëggee mën nañ cee ñëw. ah dinañ ci ñëw. Ah, c'est-à-dire yow en tant que intellectuel mënuñ la nangul Souleymane Jules Diop que ngay ouvrir débat te soubassement bi du respectueux du cadre des principes démocratiques. c'est ça le problème qu'on a c'est respectueux du comment ça bi ma ko waxee bi ma ko waxee. Euh, dem am na ñoo xam ne ils ont interrogé la faisabilité ma ni leen on peut dégager un consensus ci mën nañoo dégager un consensus la classe politique en général et heureusement d'ailleurs parce que euh, wax ji dina ñëw. waxu lan report bi. Euh, ñi ko gën a bëgg du ñun de. Euh, ñi ko gën a bëgg ñu ngi ci opposition bi nun suñu candidat comme ni ma ko waxee cest à ku am candidat bu mel ne Amadou Ba euh, may man dama yéene sénégalais yi Amadou Ba. dama non non xaaral nga ne ñi ko bëgg gën a bëgg opposition bi. waaw ñoom ñoo la wax ne ñoom ñoo ko gën a bëgg. waaw. ñeen <laughs> opposant ñoo bëgg report bi. <laughs> <laughs> du dégg nga benn opposant ah du dégg benn opposant euh, Abdourahmane Diouf moom nee na amul report ñi ko gën a bëgg ñi ngi ci opposition bi xam nga man euh, damay def dama bëri lu may wax ak opposition bi euh, dama bëri lu may woo léeg-léeg ñoo xam ni bokkuñ ci opposition waaye ay acteurs acteurs sociaux lañu ay médiateurs di waxtaan ak ñoom ci naka la ñu war a def pour Sénégal gën a am jàmm naka la ñu war a def pour jàmm de jàmm sax ci réew mi naka la ñu war a def pour que conflit politique yi nga xam ne day mujje xeex ak reyante ñu indi ko ci lu mel nii mooy diisoo waxtaan bu ñu amee ñu d'accordul d'accordul ci ñu reporter élection yi ñu ne d'accorduñ ci moo tax man yenn sortie dérangé wu ma man maa wax ne man Souleymane bu fekkente ne doon war a diisoo ñu génne une loi constitutionnelle autonome maanaam assemblée nationale comme ni ñu ko defee woon defe naa 2006 ñu voté au, au à la majorité qualifier au trois cinquième ñu ne ñun lii la ñu bëgg nangu nañ ne élection yi on ne à moins de trois mois des élections léegi de la de l'élection présidentielle am na yoo xam ni ñii parewuñu ñii àggalewuñu ko ñii jeexaluñu ko ñii am nañu tension bu ñu d'accord ñu def ko bu ñu d'accord xalaat bi doon xalaat rek boo xam ne dañ ko émettre ñu jàll ci leneen mais mais mais mais li ma du li ma li ma li ma li ma mënut a xalaat li ma li ma mënut a nangu mooy ñu enfermer ñu daal di ne lii war nañ cee mun a wax war nañ cee koo mun a xalaat lii mënuñ ko à partir du moment où man ma ne man ki nga xam ne mooy njiitu réew mi parce que moom rek moo mun a saisir assemblée ci sujet boobu président de la république rek moo mën a saisir assemblée constitution bi moo ko wax ci do ci loolu président rek moo mën a def am un projet pour que pour soumettre une ñu ñu assemblée nationale ñu daje reporter élection. et nous autres léegi kooku nee na d' accord. léegi mais mais mais mais à part euh, heureuse et heureusement euh, président de la République a a a a pris la très bonne décision toppul homme politique yi ci seen ci seen désir yooyu euh, muy opposition comme pouvoir vraiment président. il a eu la très bonne attitude. alhamdulilah mais mais mais ñun sénégalais pendant ce temps ce pays 2019 dañ falaat président Covid ñëw ñuy génn ci Covid bi euh, des tensions politiques très violentes éclatées réew mi kenn amul jàmm depuis boobu tey nous autres sénégalais on a envie que l'élection se passe kii toog toog. et qu'on passe à autre chose. Est-ce que ñun Sénégalais mérité nañu que notre cours de le cours de notre vie soit assujetti au problème d'agenda euh, des de des hommes politiques ngeen ñëw ngeen ne traque des biens mal acquis sénégalais yëpp jox leen moyen tàccu leen ngeen dem ba ci biir ngeen jël Karim Wade tëj ngeen teg ci euh, ki nga xam ne non non non man je parle en général ñu teg ci ñu teg ci Khalifa Sall ngeen dem ba mu neex leen ngeen ne ah ñi ngeen changer loi électorale bi ngeen dem ba mu neex leen ngeen dajewaat yéen homme politique yi ngeen teg ngeen déggoo def seen baara yëgoo def seen dialogue bàyyi ñi ngeen di ñi ngeen di bàyyi ñu ne dañuy dem élection sénégalais yi réew maa ngi ci jàmm vous dites que l'État a été très fort que l'État a repris le dessus que l'État du Sénégal c'est un État fort qui ne se laisse pas déstabiliser ngeen bëgg a defaat baara yëgoon nañu nañu reporter élection bi mu nekk un débat politique interminable pour une année pour deux ans et au détriment de l'économie on était on devait être en en en à 10,2 en 2019 euh. aujourd'hui on est à 6 pour cent. may mun déglu naa la. déglu naa la bu baax a baax euh, may mun a xam nga lan mooy problème njiitu réew génn ci élection ñu fal ko ñu fal ko président de la république pour cinq ans mu am ñu taxaw alors que wax na ne duma dem élection bind na ko ci livre ne bi lii mooy sama dernier mandat pare naa ci lii mooy sama dernier mandat doyal naa ci man maa njëkk a wax ne parce que damay waxtaan quand même ak président de la république man damay waxtaan ak acteurs yi damay waxtaan damay waxtaan ak président de la république mu wax ne parce que interpellé naa ko ci interpellé naa ko ci mu wax ne demul mu wax ne day xaar ba le moment opportun parce que bëggu ubbi débat de succession ci gouvernement am xoolal bi mu waxee ne day dem lii xew am ku démissionné am ku mer gedd beru su ko teeloon na wax kon gouvernement bi du liggéey dañuy nekk dañuy nekk dans une bataille de succession. les choses se sont calmées léegi. les choses se sont calmées ouais, non mais au prix. Au on prix, a xaaral au prix d'une division. mais euh, la division elle peut être maîtrisée et maintenue. bu ko teeloo nga xool bu ko teeloon na wax nu gouvernement am di mel ak luy am. léegi kooku ne man dama bëgg a liggéey bàyyi leen ma ma liggéey bu wax jotee dinaa wax wax naa ba noppi ñu ne ko forcé nga wax ñu woo nit ñi ci mbedd mi woo nit ñi guérilla woo nit ñi gatsa gatsa woo nit ñi reyante woo nit ñi xeex woo nit ñi ci lu ne ba bés ba jotee mu ne ah man maa waxoon sama kàddu démb mooy sama kàddu tey maa waxoon ne demuma demuma léegi woo woon nit ñi pour ay manifestation am ku ci ne démb dégg naa opposant bu ne benn problème rek lañu amoon mooy troisième mandat bi réglé nañu ko waa léegi ñi jógoon indi fitna ci réew mi ñooñu ñoo daaneel koom-koomu réew mi ñoo daaneel économie réew mi ñoo tax ba étranger yi waroon na ñëw fi indi ay financement ci Sénégal ñu dellu ginnaaw daw ne dañuy xaar te ba jamono ji may wax ak yow am na ñoo xam ne ñu ngi téye seen loxo ne dañuy xaar parce que xamuñu li xew ñii dem bitim réew di ŋaññ Sénégal di ŋaññ démocratie Sénégal dëkk boo xam ne en moins de deux ans assemblée nationale presque opposition gagné na ko seize départements yoo xam ne ñooy yi gën a am solo ci Sénégal ñoom ñu ñoom ñoo ko gagné ñu ñëw président de la République def déclaration publique ne pour la première fois ci réew mi man duma bokk ci élection yi dama leen di bàyyi ngeen jongante ku gañe gañe boo dégloo langage langage du président de la république boobu ba léegi dafay wax ne xawma kuy gañe waaye yàlla na bokk ci ñun waa léegi kooku ñuy wër di wax ne démocratie Sénégal dafa am problème Sénégal amatul démocratie ba am ñuy dem di wax ay dictature Sénégal maintenant dictature fan la dictature amee campagne campagne de dénigrement international campagne de dénigrement euh, international keroog démb je suis tombé sur un rapport euh, du département d'État euh, bu bu recueillir am na sax des éléments de cette TV bu ramasser tout ce qui a tout ce qui a été dit tout ce qui s'est passé et puis euh, dans de nombreux rapports sur les droits humains on présente maintenant le Sénégal comme un pays en régression. campagne bi loolu la léegi président boo xam ne dafa falu sénégalais yi ñoo ko fal bu fekkente ne neexu leen parce que man Macky nag mën naa bañ a neex nit ñi am na ñoo xam ne d'accorduñ ci politique am am ñoo xam ne d'accorduñ ci bilan am ngeen xaar ba élection jot bu fekkee da ngeen ko bëgg a daax ngeen daax ko wala ngeen xaar ba mu ne leen man damay présenté wu bu ngeen di jóg sax dem jëli ko comme ni ñu ko waxee génne ko daggate ko comme ça nu ñu def Samuel Do ngeen dem génne ko daggate ko def ko nu ñu def Samuel Do mais koo xam ne waxagul la ma waxoon démb mooy du bokk ngeen bugg a tas réew mi tas Sénégal. indi fi fitna mais mais mais bul de bul dédouaner tes camarades de l'APR. de d'une troisième euh, candidature du président de la République ñi ko ñi ko nourrir tabax ko à coup de meeting. à coup de déclaration a coup de meeting à coup de déclaration. ce sont des membres. ma et, et, et, pas des moindres de la majorité présidentielle. xam nga lu tax d' accord xam nga lu tax d' accord ma. Ah. li nga wax. ah bi ñuy dem référendum 2016 ñaari débat moo ñaari propagande la opposition génnee pour contre référendum bi dañu ne benn ki dafay légaliser góor jigéen. ce qui était faux. du dëgg. dañu ne ñaar bu ngeen voté référendum bi Macky dina am troisième mandat Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ñoo dem télévision wax ne makki sal ba Barthélémy Diaz wax ne bu Macky deful troisième mandat mu bàyyi politique. non mu ne bu Macky Sall defee troisième mandat bu ko kenn woo ci xeex. loolu la njëkk a wax parce que nee na constitution bi may na Macky sal mu présenté wu. mais après dafa wax ne bu Macky sal deful troisième mandat mu bàyyi politique waa léegi ñooñu. ñoo indi débat bi léegi ñi ci APR ay militants la ñu mais yaawuñu bopp ba mun a dugg ci boppi Macky Sall bi xam li ci ne sotti ko ñoom li ñu mën mooy ay militants rek la ñu nag. <laughs> ay militants rek la ñu du ñu leneen. mais lu moo tax bi ma bi ma journaliste bi laajee. ma ne ko man de opposition yi laa dégg ñu ne Macky mun naa def troisième mandat waaye nañu xaar ba Macky wax addu ci bu ci ma ci Macky pare conseil constitutionnel mooy wax Macky ndax mën naa présenter wala déet bu ci conseil constitutionnel pare peuple sénégalais mooy décider. waaw léegi xam nga tamit. li li li mënunoo mënunoo ji. xam nga li indi doute bi lan la. président dafa ne concentré wul leen ci mise en œuvre PAP 2A bi mu teg cinq ak majeurs bu ngeen bàyyi waxu mandat mu am Moustapha Diakhaté Sori Kaba euh, l'avocat la mon ex ami la euh, Diop ñu wax ci waxu troisième mandat ñu dàq leen et à côté ñëpp ñu doon wax naan Macky dafa représenté wu le Sénégal a besoin de lui le pays a besoin de lui dañuy def meeting def ay direct kenn mosu leen inquiété et vous voulez que les Sénégalais ne s'interrogent pas sur vos réelles motivations. Euh, dafa mel ñoo ñooñu nga lim dafa mel ne ñoo ñoo ñu ñooñu nga wax ne dañ leen dàq walla leneen dafa mel ne ñoo président tey ci ni ma leen déggee ci ni ñu waxee bu réeroo amoon tamit réeroo amatul ci seen diggante. Eh, léegi nag léegi nag ñun dans la façon de gérer cette question xëy na ñun dans la démarche def nañu des maladresses def nañu des erreurs je ne le je ne l'exclus pas euh, gis naa ci sunu kan ñoo xam ni sax dañu wax dañu njëkk a wax ne président mën te présenté wu ba mu yàgg ñu wax ne président mën naa présenté wu mais euh, encore une fois mun Maïmouna dama jàpp ne loolu politique la ci cadre politique euh, le Sénégal dañu am des institutions fortes et contrairement li ñu bëri di wax dañu am une justice forte léeg-léeg nit ñi bañ a d'accord ci li ñuy wax nit ñi bañ a d'accord ci seeni décision bu dee juridiction supérieure yi seeni arrêt mais toujours toujours saa su ne fi muy mujjee fi muy mujjee te li gën a am solo mooy dinañu def dinañu def élection yoo xam ne dafay leer ki war a gañe gañe Ablaye Wade bi mu nee day def troisième mandat dañu ko xeex a xeex a xeex a xeex ba sonn man maa ngi fàttaliku booba jaxate moo doon jaxate moo fi nekkoon juste jaxate maa ngi fàttaliku dañu demoon ba nun dem nanu ba di woo waa famille waa këram pour influencer ko pour que mu bañ a valider candidature yi Ablaye Wade loolu sax yegg nañ ci mais mais bi mu nee day présenté wu ba ñu décidé ne Ablaye Wade mën naa présenté wu am na ñu wax ne bu ñu dem élection jamono jooju am na ñu wax ne Ablaye Wade dafa préparer pour truquer élection yi Sénégal kenn mënatu fee sàcc kenn mënu fee sàcc élection bu amoon i tamit mënatut amati parce que am na jamono yoo xam ne 93 ah, non non euh, non moi j'ai po au fait man dama dama pose des questions li ma li ma je je au fait je j'ai été je suis surpris que nit ñi mu jaaxal leen que ma mën a ne est-ce que conditions yi ñu ne est-ce que reporter élection yi doonul gën ñu génneel ma ci benn dañ ma bëgg a reporter loo élection yi ñaar xëy na sunu candidat dafa am faiblesse opposition moo am faiblesse. mais yow yaa ko wax. man maa wax lan. yow yaa ne. Amadou Ba est amorphe. mais waxoo ma ko waxeewu ma ko. <laughs> mais Souleymane lan nga bëgg nit ñi xalaat non déedéet damaa njëkk ne damaa njëkkee ne man je cent pour cent Amadou Ba ma ñaare ci ne fukki at a ngi nii ma koy fréquenté mosuma koo dégg mu xuloo mosuma koo dégg mu xeex mosuma koo dégg mu wax wax ju ñaaw mosuma koo dégg ma ñëw ne ko diw loo joteeg moom. même bu ko waxee lu ko naqadi mu wax ma lu ñaaw lu dut ne ma pourtant c'est mon frère pourtant c'est ma sœur man maa wax ne kooku mooy kandidaa bi ma tànn ma bàyyi samay frère ma woo leen ne leen Macky Sall mi leen tànnoon démb ñun ñu nangu ko Macky Sall boobu moo tànn Amadou Ba ñu war koo nangu ma teg ci ne jàpp naa ne Amadou Ba nitu li ma xam ci moom muy nitu jàmm du xuloo du xeex musuma koo gis Amadou mu perte sérénité am ma ne kooku laa yaakaar ne moom Sénégal tey da koo soxla waxuma leneen maintenant li ma ci teg te ma ma wax ko may mun a xam nga mooy la dama wax ne dafa war a yëngatu benn dafa war a gën a wax ak nit ñi ñaar j'ai même dit ci tubaab dama ne il doit construire des ponts des passerelles entre moom ak nit ñi dama ne daf ñoo war a rassurer rassurer nit ñi te bi ma ko waxee ba léegi euh, ñaar am na natt naa ci sunu biir ak ci biti ñi nga xam ne am na lu ñu dencoon mënuñ koo exprimer natt naa ñaari tamit deuxièmement euh, mobilisation bu nga xam ne après am na y compris ñoo xam ne de bonne fois dañu yaakaar ne Souleymane <laughs> dafa ñëw pour lii pour là pour ñoom au contraire ñoom dañu jàpp ne on est assez fort ñun pour que suñu jàkkaarloog opposition bi le 25 février incha allah ñu gagné leen. te man mais mais mais, mais xam nga tes prises de position moo lay porter préjudice tout, toujours. Mm-hmm. on après on ne fait pas attention à ce que vous avez dit antérieurement boo préciser na Amadou mooy sa candidat. nga rappeler nga rappeler seeni mais nga nga nga def benn décharge bu violente. je ne le candidat de la majorité présidentielle. je ne tànn ko ngeen am ay problème euh, encore en interne moom mu tàmbali liggéeyam yow nga ñëw toog nga ne opinion bi suñu candidat bi dafa amorphe xawma lan moo ko dal est sax. waruñu étudier l'idée d'un report de l'élection mais mais c'est la charge la plus non, non. violente reçue par Amadou Ba même ses adversaires ñi doon xëccoo ak moom euh, la candidature à la candidature de Benno n'ont pas été aussi violents que vous et par la suite votre argumentaire opposition bi s'en est servi pour attaquer votre candidat alors et on s'interroge encore ci say ci say motivation qu'est-ce euh, que vous vouliez enfin euh, utiliser nga qualificatif qualifier li ma wax euh, exprimer nga exprimer nga une position que je respecte parce que ñeneen wax nañu ko c'était pas le but ça a jamais été le but amorphe bi ma utiliser dafa am signification li ma ci teg pour man dafay expliquer li ma bëgg a wax amorphe mooy ku yënguwul mooy ku ku ku ku yënguwul daal. ku ku ku ku ku yënguwul. ku yënguwul tayal na. ah doxalul yënguwul laa wax. waaw te boobu léegi gis naa mu yëngu boobu léegi gis naa ñun ñu yëngu bés bul boobu léegi gis naa ñi dem di ko parrainer ñu yëngu loolu laa ci jublu woon loolu laa ci doon wax am naa lu ma ci metti amuma lu ma ci metti Euh, li ma ci à euh, euh, vos camarades ne vous ont pas raté. li certains certains le débat est sain le débat est serein certains ñenn ñi ci ñi ngeen ñi ngay woowee camarade <laughs> parce que man ci ñi ngay wo ñenn ñi ci ngay woowee camarade man nag dafa am dafa am wax dafa am wax yu am maanaa am wax yu amul maanaa dafa am wax ju jar tontu am wax yu jar jarta tontu. <laughs> ah les gars gars yi gars yi ils n'ont pas léegi non non euh, mais c'est bien c'est tant mieux. am na ko toog mu ne bu élection jotee gars dañuy positionné wu boo amul base il faut que tu te fasses attendre. Maymuna Maymuna Maymuna man maa ëpp base. ah man maa ëpp base. ah bon comment ça yaa ëpp base man maa ëpp base. explique ça. Euh, maa ëpp base euh, parce que comme ni nga ko waxee bëri na ay opposants yuy dem defi émission bëri na opposants yuy dem defi émission néew na ay opposants même ay candidats à la présidentielle yow da nga fi invité. kat nga ci gis bu waxee ba pare nga gis ëllëg sa vingt personnes vingt vingt journaux relayé ko ñu di ci wax weer. koo ci gis jox ma exemple ma nekkuma fi France laa nekk donc euh, yàlla may na ma te mooy sama nattu yi tamit nangu naa <laughs> bu ma waxee nit ñi débat nit ñi discuter journaux yi relayé ko ñi kuppati ñi daggate nit ñi di wax maintenant parce que doo wax mukk ci neen saa yooyu wax am na loo togg ci ginnaaw gars yi lañ jàpp maintenant moi j'ai au fait dama commencé wax ne que benn candidat laa am te xam naa lu ma renoncé moom xam na ma moom xam na fu ma ko teg moom xam na lu ma daj ci moom bi muy gën a metti nit ñi di ko daw moom xam na ko Amadou xam na ko Amadou xam na bu baax xam na ne man ay intérêt ay position musuma motivé motivé ma Amadou xam na ko président Macky Sall xam na ko xam na ko président Macky Sall xam na ko gis nga Maïmouna. mais est-ce que est-ce que est-ce que c'est pas parce que vous vous sentez exclu. vous êtes à l'étranger. exclu par qui. si que Amadou Ba y un candidat qui arrive. Euh, euh, vous êtes grand communicant euh, Amadou Ba ah, xëy na boolewuñu la. Maïmouna xëy na Amadou Ba woowu la am na sax foo ko waxee. Maïmouna gëj ngeen waxtaan. déedéet gëñu joo ngeen gëjee waxtaan yaa Amadou avant ngay def sa charge bi. maka Amadou. avant nga koy chargé. mais moom ma fi indi kañ ngeen gëj waxtaan. moo ma indi. nu mu la fi indee. moo ma indi. mais nu la fi indee. moo ma jëlee France ma ñëw. mais euh, pour lan. pour liggéey. dans sa com. man man du ma communication kese Maymuna xam nga nit ñi dañu may prêter. bi ngay jóge France di ñëw Amadou moo la fi indi. barke nga dem grand jury bu Babacar Fall et nga chargé Amadou Ba. waaw xaaral xaaral il faut nga déglu ma may expliquer ci ñun ci ñun mooy te loolu au fait loolu moo dal sama xel ci at Amadou gën maa neex ci moom Amadou mooy suma premier défenseur billaahi tey répété na ma ko. parce que vous avez reçu aujourd'hui ah dindil tukulóor bi nekk ci sa kaw chemise bi <laughs> y a sa kaw chemise bi attends may mun a Amadou mooy sama premier défenseur Souleymane est un homme libre Souleymane est un homme d'esprit amadu mooy suma plus grand défenseur looloo tax ma gën koo naw mais looloo gën a tax sunu diggante gën a dëgër. Euh, ah Amadou wax ah, ah, Amadou moom il sait en waa xaaral waa xaaral moo tax ma gën koo fonk amadu xam na ma man du ma nit kuy kon am naa lu ne wax nga PUDC bi cinq cent vingt deux milliards la man bi ki di dem élection man ak Mimi Touré la woo Mimi Touré xam na man sama liggéey ak sama xam-xam xam na li ma mën ak li ma mënul dañ may présenter comme un chroniqueur comme ci comme ça du ma loolu rek. mais amul lan la la woowee pour nga lan la la sant pour nga liggéeyal ko. mais loolu may mun a du lu may wax fii les premiers documents au fait looloo ma xaw a jaaxal ci mbir mi les premiers documents de stratégie yu mu téye ci loxoom maa ko ko jox daje yi njëkk daje avant Macky jeunes yi APR yi ñu ngi may dégg mën nañ koo seede avant Macky di ko désigner laa leen commencé woo di waxtaan ak ñoom di leen président Amadou lay désigner Amadou mooy doon suñu candidat jàppale leen ko jeunes yi JIR yi ñu ngi may dégg jeunes yi APR yi ñu ngi may dégg euh, donc moi. mais mais vous avez un problème de démarche Souleymane. donc waa xaaral waa xaaral vous pouvez apprécier moi moi je suis. Ah xam nga ki la jëlee pare indi la ki nga ne da ko élaborer une stratégie. Euh, ah non Amadou euh, ki nga ne da ko élaborer une stratégie. mais je pense que boo toogee nga def la constat que am na nu mu war a yëngoo yëngoowu ko mais nga wax ko ko entre quatre murs waaw waaw Maïmouna vous n'avez pas à armer ses adversaires contre lui Maïmouna encore une fois su ma jublu woon ci armer ses adversaires wala dara nga may ma ma ma au moins placer <laughs> quelque mot su ma jublu woon ci armer ses adversaires wala dara du ma démarche du ma defee noonu man xam naa su ma jugoon pour déstabiliser wala ñu ne oui Souleymane problème de lan positionnement positionnement. Mm-hmm. mais su fekkonte ne problème mu positionnement wala problème toog France wala léegi du ma duma ma xaar kon duma xaar ba tey gis nga may Maymuna ma wax la ma wax la tuuti ci man gis nga président bi mu nee du dem élection day bàyyi. dama ñëw seet si ko fekk ko ma ne ko président mu ne ma ma ne ko man damay bàyyi sama liggéey dama bugg nga yeewi ma ma bàyyi sama liggéey mu ne ma pourquoi ma ne ko dama bëgg a ñëw nekk sa service gratuitement mu ne ma Souleymane lu tax nga bëgg a def loolu ma ne ko parce que yow yaa ñu defal ba fii tey ñun ñoo la war a defal ñun ñoo war a ne sa wet liggéeyal la ma ne ko laajuma dara mu ne ma koo xalaat mu remplacer la ma ne ko diw laa xalaat diw boobu ñu woo ko waxtaan ak moom yëf yi tourné ni mu tourné moi j'ai pas de problème man su ma doon positionné kon du ma wax ni ñuy def xam naa ko su fekkoonte ne positionné wu dans la vie rek rek rek moo tax pour am dara kon du ma def sept ans d'exil lu ne ma daj ko lu ne ma dund ko ma souffrir ci sama famille souffrir ci bu doon ma gis nga laay Wade bu taxawee kilifa sax bu ma séenee moom mooy doxal boppam ñëw fekk si ma kon Macky du nekk premier ministre ma dem yow xam nga sama digganteeg famille Macky yow xam nga di sama digganteeg aliw kon du ma fi bàyyi lépp dem bi may dem Karim daf balaata may dem bi ma nekkee Idrissa di ko defaan Karim daf maa woo ne ma am nga Idrissa may na la terrain ma ne ko déedéet may na la kër ma ne ko sexuñu ko mu ne ma mi ngi maye ay terrain mi ngi maye ay appartement du la ci jox looy def ak moom kon duma def loolu donc mën nañ maa man reprocher lépp ba mu des positionnement pour ay poste pour ay fonction et j'ai décidé même man ci sama bopp ne bugguma jouer bugguma jouer un rôle officiel Amadou xam na lu ma koy liggéeyal bis bu ne xam na lu ma koy jàppalee bis bu ne léegi boo nekkee ci interview ngay waxtaan baat mën naa ñëw nga prononcer baat boo xam ne xëy na manoon nga ko prononcer neneen mais li mu traduire yow ci sa bopp yaa ko wax nga ne yëngatuwul dama ne ko moo tax ma ne journaliste bi dafa war a gën a yëngatu dafa war a won nit ñi ne chef la leader la dama jàppoon ne débat bi au Sénégal war na mun a permettre lu mel noonu. ce sont des insinuations. li li ma dévalorisantes li ma li ma metti encore une fois yaa ngi utiliser ay qualificatif. qualificatif yoo xam ne utiliser wu ma ko. parce que sa dafa war a ne chef la. dafa war a wane ne dafa war a yëngatu. Maymuna li ngay insi euh, dafay wàcce niveau am. insinuer alors que yow ci sa bopp xam nga ne Amadou Ba c'est son style c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. mais peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ci suuf. je crois que xam naa ko tuuti. voilà xam nga ko. Euh, ma sortie am nañu ko apprécier négativement am nañu ko apprécier positivement euh, encore une fois san man li ma man euh, pour clarifier ma position est ce que j'ai dit ci laa ne je ne veux pas que ça soit l'essentiel de notre discussion d'aujourd'hui. <laughs> Vous saviez que ça allait être l'essentiel. Mais et je me suis expliqué. Un mot peut être au-dessus d'un autre. Un mot peut être plus haut qu'un autre. Un mot peut être plus choisi qu'un autre. dafa am lu ma doon wax waaye mayoo ma ma ma yegg ci. Euh, dama wax ne am na lu ma lu ma metti ak loo xam ni lu ma ci metti ci wax coow lii am na lu ma ci metti am na lu ma ci dérangé wul. la moo la ci metti mooy interprétation boo xam ne samay propos prêté nañ ko parce que man amadu amadu xam na ma Amadou Amadou xam naa maay kan président de la république tamit xam na sama loyauté ak sama engagement ak sama xarit ba fan. la mën a yegg ma sacrifier man sama bopp pour sama nit pour sama xarit ci lu ne ci lu ne damay dem ci président plaider pour nit ba nit ne ma yow doo toppatoo sa bopp may mun a yaa ngi fàttaliku maag yow nu nu miinantee est-ce que yaa ngi koy fàttaliku da nga ñëw wax ma waxi benn opposant nga ne ma diw de am na ay problème dañ ko war a yóbbu. bul ma dugal. bul <laughs> ma dugal. ça c'est humain. bu fekkee gars bu tax gars yi suba. ñu xëyal ma non non non mais comme da nga bëgg a da nga wax dañuy dañuy waxtaan. non c'est-à-dire que dama la bëgg a wax rek ne la euh, loolu que ñu ne ma wéy am na ñu wax ne sax Pastef la ñu ma dégg ñu koy wax. ñu ne Pastef nga. waaw am ah na bu dëgg ñu wax waaw Pastef la non euh, pourtant ci émission boobu dama wax ne dafa am benn mbàkke mbàkke sëriñ bu mag a mag bu ma ne waa Souleymane yow ñetti at ci ginnaaw parce que dama ni ko man de bëgg naa bu fekkee président présenté wul Amadou nekk sunu candidat. mu ne ma Souleymane Amadou bëgg nga ko de ma ne ko déet bëgguma dama koo ragal te dama ragal tooñ dama ragal dama ko ragal tooñ mu laaj ma lu tax ma ne ko Amadou mosuma koo dégg mu wax lu ñaaw Amadou mosuma koo gis muy xuloo mosuma ko gis muy fayuwante ma ne ko mais surtout mosuma ko gis situation boo xam ne il a perdu sa sérénité et pourtant bi mu nekkee ministre des finance euh, tollu nañu diggante yoo xam ne diggante yu tar la nit ñi di ko xeex gis nga ni ñu may accuser nii accuser nañ ko amatu dañ ko diaboliser. diaboliser ko waxloo ko lu mu waxul dëkkal ko fu mu dëkkul ba dem bay wax ne moom moo créé Pastef moom moo créer sunk côté boobu xaw na maa metti et ñu euh, way xaalis moo tax man Souleymane. président xam na ma bu gaa yi ñëwee wax dafa leen di bàyyi ñu wax ba mu déglu mu ne ah je le connais am na lii de xam naa ko ci moom. sur cette sur ce sur cet opposant là yëgalil histoire bi pour ne pas créer de la confusion. non non non non non non ñu xam ne c'était purement une démarche humaine. mais absolument ah. mais absolument non leneen taxul ma wax ko. dafa feebar. non non dama lay louer sa action d'ailleurs ci loolu. je ne l'ai pas dit pour ça je l'ai dit pour te dire que tey ñii ne fii bari na ci ñoo xam ne dama dem jaamu seen soxla fàtte sama soxla. nit ku feebar la ma soumettre la cas bi nga porté ko à l'attention du président de la République pour ñu mun koo évacuer. bëgguma sax ñu egg. voilà non non xam nga boo ko daggee day mel ni yaa a quelque chose derrière alors que c'était purement une démarche humaine. waaw man pour man man bu ma amee xarit. mu nekk sama xarit dama koy jaam donc nit ñi mën a xalaat ne man man naa am intention bu bon ci Amadou metti na ma. alors li la ci mettiwul. léegi nag li ma ci mettiwul mooy gis naa ne débat am na gis naa ne nit ñi yëngatu nañu gis naa ne am na sursaut boo xam ne ñun suñu propre camp dañu jóg parce que peut-être ils ont senti que war nañoo wone ne nous sommes forts. wax na noo wane ne nous sommes euh, nous sommes ñu jóg gën a bouger gën a liggéey indi ci indi parrainage yi dugg ci dëkk bi wax ak sénégalais yi sunu candidat wax ak sénégalais yi ñaari bi ma ci neex mooy bi ma waxee képp koo xam ne da am tuuti loo dencoon woo nga ma <laughs> ah waaw ku ci am tuuti loo dencoon woo nga ma. yaa la xiif nag. non ku ci ku ci am loo dencoon loo dencaloon Amadou. lu la naqari ci Amadou woo nga ma. nga nekk réceptacle. ma nekk réceptacle léegi ñooñu. man maa comme xam naa leen identifié naa leen maa léegi man maay tey ci ngoon la mujjee man maay dellu ci ñoom ñoom te ci ngoon si la mujjee euh, premier ministre ñu may seetaan. di def link yi. di def link yi. di expliquer di jubale di dajale. Souleymane nag gis nga yow nag dama la wax benn affaire de je t'ai beaucoup côtoyé bi ngay nekk chargé de com du père ñu doon waxtaan lu bari mais benn affaire benn affaire moom dama koy seede ci yow yow ay amoo ay motivation financière l'argent c'est pas important chez donc ñi lay accuser loolu xëy na xamuñu la mais yow da muus <laughs> mais vous êtes d'une intelligence <laughs> mais mais gis nga. Ah dëgg muus ba pare muus bi am na mot bu ma bëggul utiliser xaw ma ndax je dois l'utiliser mais muus bi dafa ànd ak caay-caay. astafurlah oui muus. c'est-à-dire en une émission vous êtes repositionné au centre du débat. nga yaakaar ne loolu la. en une émission nga jaxase carte gi. repositionné wu au centre du débat nga egg nga nga nga mel ni yaa ngi Sénégal yaa ngi nekkoon fële ñu commencé woon la sax fàtte. <laughs> may mun a xam nga xam nga man l'intérêt tout l'intérêt fi mu nekk xam nga lan la au final au soir du 25 février ci ngoon sunu candidat gagné. oui mais da nga en même temps. une une stratégie personnelle de repositionnement. non c'est-à-dire aujourd'hui dellu si waat nga dans le dans le dans le débat un deuxièmement euh, Amadou Ba tey nekk nga réceptacle des frustrations yaa ngi dem di di di dox ngir diggante yi ngir diggante yi ratax premier ministre bu la bàyyiwul woon xel euh, dina bàyyi xel parce que xëy na moom xelam fatt woon na euh, ci yow c'est-à-dire en un coup da nga régler plusieurs problèmes y a même qui m'ont dit dafa gëj a dégg président moo tax. kan. oui y en a qui m'ont dit waaye mënatul dégg Macky déggatul Amadou. <laughs> laaj ma kañ laa gëj dégg président. kañ nga gëj dégg président. ci suba. non ba avant lii. déedéet. avant lii laa wax. wallaahi ma su ma am problème bu mel noonu ak président. si suba nga ko mujjee dégg. laaj ma kañ laa gëj a premier ministre. ah ci ngoon waaw. c'est après votre déclaration. non non non non mais avant. non non wallaahi. avant kañ la ko gëj a dégg Maymuna Maymuna jàppal ne maa ngi jàkkaarloog sénégalais yi jàppal ne benn sénégalais jaraluma fenn. billaahi benn sénégalais jaraluma may fenn passé naa loolu euh, président ci suba lan ngeen waxante. bu dee ah, lu ñu mën a wax ah déedéet déedéet mais mën na nekk sur des questions d' intérêt national. mën na nekk ci lu yitteel réew mi loo xam ne man mën naa ko xam ak samay morom. déedéet hmm. man mosuma am problème bu mel noonu ak président de la république euh, xam nga man dama ànd ak Macky liggéey euh, bi may liggéey dama jàppoon ne président dafa soxla woon loxo yu set bis nit ñëw. bi mu ma nommé PUDC nit ñëw guddi seet si ma mu ne ma damay waxtaan ak président mu wax ma lii ci yow ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne ma góorgóorlu euh, bi mu ma waxee loolu ma jàpp ne kon PUDC bi te président dafa ni ma ci boppam li mën naa ko wax fii dafa ni ma dama lay dénk Souleymane dénkuma la n'importe quoi su ma gëmul woon sa talent su ma gëmul woon sa engagement su ma amul woon ci ci yow confiance duma la ko jox mu ne ma programme yi ngay dégg ay yoonu yokkute man naa ne ñeneen a ko bind mu ne ma waaye bii man la mu ne ma joxuma la n'importe quel programme dama la jox programme bu may falaat ñuy dem élection ma def PUDC ba am village yoo xam ne ay chef de village ay maire dañ ma doon woo ma ak li ngeen fi def ñun mënuñoo continuer di contre Macky Sall boo jëlee carte fi ñu demul PUDC fi PUDC demul ci Sénégal mooy carte fi ñu perdre à la présidentielle mën nga koo superposer président di dem élection mu woo ma defal ma décret man kott le président Macky Sall defal décret ci élection yi comme son mandataire man kot ma ànd ak moom campagne liggéeyal ko liggéeyal ko jaamu ko tarbiyu ko ñu pare 19 heures 30 avant 20 heures la ma premier ministre woo ne ma Souleymane nii nii nii nii ma ne ko premier ministre mu ne ma ma ne ko bul àggale ma ne ko bul àggale Macky Sall ne ko defal na ma lu luy tax ma jàpp ko ba faw abadan dootuma ko bàyyi. parce que Macky daf la porter contre tout le monde ah. il m'a pas porté contre tout le monde. si. Euh, non. si xam nga lu tax xam nga lu ma ne. non Macky daf la en tout cas Macky daf la porter et ko assumer. xaaral non avant non euh, dem na fu gën a am na fu gën a sori sax ma président foo xam ni du ma ma fa yegg président dafa sori ci ma saa yu mu demee ba gis ne que c'est tendu c'est difficile daf may woo tukkee ak man ñu wéet man moom ak yàlla mu wax ak man bu sam toll na jamono yoo xam ne c'était dur pour moi parce que sama yaay daf feebar ma ki souteniruma rek soutien matériel wala dara daf ma soutenir moralement moo tax ma wax moo xam ne ko man bokk ci gouvernement ñàkk bokk ci gouvernement. Mohamed ban Mohamed John. ok ak leneen ak leneen parce que nag am na yu ci xew yoo xam ne ay détails la du ma ci dugg. si vous en parlez maa ngi doon maa ngi doon xaar leneen lu du bañ a bokk ci gouvernement bi. ah bon waaw lu sax. parce que dafa am lu ñu dafa am yoo xam ne jot na cee waxante jot cee jaar xam nga koo xam ne pendant vingt-trois jours. da ngeen di yenn di nee nay nekk ensemble ba deux heures du matin ngeen dem tëddi yeewu nekkaat neuf heures ba deux heures du matin dafa am yu muy créer ay liens yu muy créer te képp kuy sénégale nga xool campagne bi xam nga sama liggéey nangu nga ko sama sœur Mimi Touré ma wax ko bi ñu ñëwee dafa ne heureusement qu'il y avait Souleymane avec nous te Mimi du ko ma sexal lem muy wax dama liggéeyal président bi ma affecté dafa am mission bu ma assigné bi may affecté. c'était quoi. soxloolu ma di ci ñëw mais daf ma affecté woon mission mais bu ñu yegsee ci peron bi dafa am lu ma wax lu ma touché dafa ne ma su demee Souleymane boo demee Paris ma ne ko ah, mu ne ma li ngay njëkk a def indil sa yaay foofu nga faj ko mais ku la defal loolu au fait euh, moo tax bi mu nee du dem. ma ñëw ne ko président man dama bëgg a bàyyi liggéeyal la gratuitement. mais pour en revenir à ça da ngay quitter UNESCO euh, vous avez un remplaçant. non non non non non on en a parlé les choses ne se sont pas passées comme moi je le voulais au fait depuis janvier mais bien avant j'avais pensé que sama dernière mission ci UNESCO mooy élire Sénégal au comité du patrimoine mondial maa ngi ko nas mars 2021 moo doo waroon a nekk le dernier acte parce que fu fu réew mën a falu rek fal naa fa Sénégal président dinaa groupe des ambassadeurs africains euh, éliwraat na ñu conseil exécutif UNESCO euh, la le règle le, le, euh, le les statuts du du groupe Afrique 54 pays man maa ko bindaat indi leen ñu négocier man maa signé statut yi Euh, présidence convention mondiale contre le dépage bi ma taxawee di ko xeex pour ñu jël ko pour ñu dugg ci bureau bi ay ministre yeneen dëkk Nigéria ak yeneen ñoo ñëw ne ma du fi amee parce que yow euh, suñu texte yi UNESCO euh, Union africaine dafa wax ne il faut ministre bi teew sa ministre nekkul nekku fi ma xeex ba ñu dugal Matar ma continuer di xeex ba finalement Matar ñu fal Matar président bi ma ci paree ma ne leen rek a ma dese bu ñu faloo pré bu ñu faloo comité du patrimoine moine mondial nga xam ne mooy kuréel gi gën a am solo ci UNESCO parce que wàllu culture la fa la ñuy dogalee yan dëkk ñooy bokk comité yaay yan dëkk la ñuy euh, dugal euh, ci patrimoine mondial bi de l'UNESCO yan dëkk lañ dul dugal yan sit ak yooyu ma ne def naa sama liggéey ay nit woom comme commentaire yi may dégg rek may mën ay nit ne ma Souleymane ma ne ñu ne ma boo bàyyee dañuy jàpp ne leneen la samay mbokk ñu ma bëgg am na koo xam ne ci famille président la bokk mu ne ma bul bàyyi soo bàyyee dañuy yaakaar ne dara tax ma déglu loolu ma jàpp loolu bi may wax janvier ci émission tolluwaay ne dama bëgg a dem booba président décidé gul donc man mënuñoo wax ne li président tànn Amadou Ba amagul sax ñetti weer moom moo tax ma wax te man ma wax daaw wax daaw géej wax daaw daawaati géej wax ay at ci gannaaw. waaw mais donc pour moi moi je comprends sama xarit sama frère Ismaïla on a discuté de ça parce que noonu la. on a discuté. oui c'est un intellectuel. c'est un intellectuel Souleymane on est entre intellectuels sama m'a touché et on est entre politiques c'est normal qu'on débatte c'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord au fait je me suis retrouvé ci li am na ñoo xam ne saaga lañ mën ñu mënoo mënoo leen a tere ñu saaga. ah manoo ko manoo leen a tere ñu saaga loolu la ñu mën am na ñoo xam ne comme xaalis lañu bëgg dañu jàpp ne man su ma waxee rek xaalis a tax man président jug na taxaw fu mu gën a méttee ci man mu yëkkati xaalis ne ma sa mag laa jëlal ma ne ko duma ko laal guddi mu wax lu ne ma ne ko président grand duma ko laal mu insister ma ne ko def ko sa campagne sama participation sa campagne ma jóg dem boobu la gënoon a métti léegi ça va maa ngi costume maa ngi cravate maa ngi. Ah, dafa metti woon financièrement pour yow. mais c' était très dur moi j'avais six procès six procès Canada à l'heure ils sont payés quatre cent cinq cent euros cinq cent dollars ñu gën a yomb ñu fay cabinet lobbying pour ñu wër. fu mu mën fu ma am liggéey rek cabinet lobbying bi di woote di wax di wax ba ñu dàq ma fu may liggéeyee. <laughs> xam nga ah ñaata la ñu dépensé ci avocat. Ah deux milliards. kan moo dépensé cabinet lobbying bi moo. dépensé état état du Sénégal. état du Sénégal. deux milliards la ñu dépensé contre man. non ah d'accord de francs état du Sénégal sous le régime de Wade. la ñu dépensé pour ma partout. à l'époque j'étais à Radio-Canada j'étais à Radio Ville-Marie après ma dem Radio-Canada rédacteur présentateur di daan sama doole <laughs> ñu seeti responsable reporter sans frontières ba fa ne woon mais mais yàlla buur la may mun a hmm. yàlla buur la yàlla ku man la gis nga bis bi ma demee voté ba ne sama sœur xeex bi nag metti na xeex ma ne sama sœur mi ngi may dégg mooy responsable communication Parlement Canada ñuy ñuy dox ñuy ñuy ñëpp si ma ne ko ah, xeex bi metti na dama bëgg léegi daal defi leneen toppatoo sama yaay parce que li mënta wéy ma ne ko bu ñu gañee alhamdulilah bu ñu gañewul nag ma dem defi leneen toppatoo sama yaay parce que man rapport yooyu laa am ak sama yaay dama doon bàyyi sama liggéey moo Montréal ma dem fekki sama yaay parce que fi ñu ko defoon c'était pas loin du centre de cancérologie bi mu doon fajoo ma koy toggal di ko fóotal hmm? di ko paaseel dégg euh, bi may wax loolu sama sœur mu am sunu grand frère boo xam ne ndeysaan président la doon militaire pap Gassama mooy sunu vice consul papam lu mu tuddee président mu wooma damay pare que Abdoulaye Wade day constater ses résultats temps yi mi ngi génne ay char ak yooyu ma ne ko Abdoulaye wat jeexal na ni ma koy waxee noonu Abdoulaye wat jeexal na ma dégg yuuxu ma dégg yuuxu mu sànni téléphone bi dégg dégg ci suuf Abdoulaye Wade félicité na Macky hmm. ma soeur s'est mise à pleurer ma soeur s'est mise à mais le 20 bi ma ne président defal lii ci sa campagne jël ko def ko ci sa campagne dafa ni ma je vais gagner et tu vas rentrer. te boobu yoroo dara. yoruma dara yàlla xam na yoruma dara xanaa borkañ parce que sama crédit carte de crédit xoos naa ko xoos ba mu def moins dix huit moins dix huit mille dollars. <laughs> fiñ jàmm. mais heureusement on xoos naa sama carte de crédit boo def moins dix-huit mille ba am gam mujj gi man man sama mémoire sama mémoire pour plaidoirie man maa koy bindal sama bopp <laughs> déposé ko ndax avocat boo dem boo amul trois cent dollars du laal sa ma am ci juróom benn nag ay procès <laughs> mais c'était à juste raison aussi te nga sonaloon gars yi te non dëgg sa domaine gars yi may mun a dama nekk ak Idrissa xaw ma lu Idrissa def Idrissa joteeg Ablaye Wade Abdoulatif Coulibaly bind livre livre baa ngi génn le 3 juillet 2003 ñu ne Idrissa moo commandité livre bi sa dem vacances ñu nekk di ko préparer coup pour tëj ko ma dem seeti maître Wade loolu rek laa def ma dem seeti maître Wade le 6 le 6 et 8 août bi njëkk maa ko seeti ñaari bi moom mu convoqué ma ne ko président mu ne maa ma ne ko le 23 octobre 1999 nga jóge France ñëw après un an et demi d'exil ma ne ko li nga nekk bitim réew yëpp maak Idrissa ñoo doon nekk moo doon débrouiller yu di fay personnel moo doon débrouillé wu bu ordinateur yàqoo mu defar ko moo doon débrouillé wu pour fay courant moo doon débrouillé wu pour def lépp ma ne ko nga ñib si ma dégg la yow nga wax Idrissa ne ko Idrissa dama laa bàyyee parti ñëw fekk fi parti ak genn wàll ma ne ko gis naa sax mu taxaw buy bugg a xeex ak ay opposants à l'époque euh, ku décédé du ma tudd turam Idrissa ne mooy nekk candidat opposition kooku ne ko lu tax Idrissa nekk comme candidat opposition kooku ci ñi gën a défendre Ablaye Wade euh, Ablaye Wade après nekk ci gouverneur ne ànd ak Ablaye nekk allié Ablaye la bokkoon finalement euh, donc <clears throat> jaar-jaar boobu laa am ba yegg si fii. non mais yeggalil. ci bi nga ne li nga def mooy dem seet ab lay Wade wax ak moom ci waxu Idrissa Seck yeggalil foofu. mu ne ma yenn ko sànq ma ne ko ah yenn ko sànq la ma ma xam ci laa xam ne Idrissa sànku na bi ma génnee ma woo ko ma woo Idrissa ma ne ko ah Idrissa mu ne ma ma ne ko je ne connais pas ta maman il paraît que c'était une femme bien mais yàlla na ma ne ko mais nekkatu fi mais yàlla na la yàlla na ko yàlla na la xolam couvrir mu ne ma Souleymane qu'est-ce qu'il y ma ne ko dama dem seeti maître lii la ma wax est-ce que mun ngaa ñëw mu ne ma du ñëw loolu mënu koo déplacer lu nit ñi di waxtu du dëgg du dëgg mënu koo déplacer Idrissa ngi ñibbi si le 21 août 2003. mooy ces fameuses vacances là très contestées à à à l'époque. man maa mujj ne ko Idrissa am na ñeent ñu dee Matam am na ku dee Nioro mënatoo toog ci biti mu ne ma kon maa ngi ñëw lu ma lay wax ni c'était il y vingt ans bi mu ñëwee. kii doxal le 9 septembre ñu dem mu inauguré Senbus yooyu xew fi après président ab Abdoulaye wat da ko daxoon ci gouvernement bi jëlaat ko ñu yaakaar ne jàmm am na mais bi ma demee wax président dama ne ko président mu ne dama ne ko président mu ne ma ma ne ko yaa ngi waaj a créer ñetti journaux pour attaquer Idrissa saaga ko mu weddi ko mu weddi ko ma sitel ko ñetti journaux yi mu weddi ko moo tax mu woo ma téesante ñaari ñaari fan après mu woo ma téesante man ak ñoom Souleymane Ndéné ñu ngi may dégg ak ñoom Pape Samba ñi ngi may dégg ak ñoom Farba ñi ngi may. Pape Samba Mbow. waaw ñi ngi may dégg. daf la ci woo tiiñal la. waaw waaye nee ma woy man maa wax lii maa wax laa bon enfin Ablaye wat euh, je préfère retenir ci Ablaye wat lu baax. lu ma xam pas les problèmes parce que dencalu ma ko bi ñu ganee dama ko woo pour balu ko ax mu balu ma ax lu ma mën ma def ko pour ñu bàyyi doomam libéré ko lu ne laa ci daj pour ñu bàyyi doomam libéré ko donc président côté boobu wax nga ko dañ koy tooñ dañ koy tooñ Macky Macky n'est pas makki au fait Macky euh, bañ bañ problème bañ tension mais il n'avait aucun intérêt à protéger des gens qui n'avaient aucun intérêt pour lui mais am na ci ñoo xam ne euh, il n'avait aucun intérêt mais Souleymane donc waaw ouais, non non damay oui vas-y daana non non journaux yooyu mu créé man la ñu xëyee man la ñu njëkk a xëyee à la une Souleymane Jules Diop essaye d'acheter les statuts du PDS bis bu ñu ne ñu saaga sama yaay bis bu na ñu saaga sama papa génne ma dëkk bi lancer un mandat d'arrêt international contre moi te defuma dara may mun a man masuma masuma ma au fait j'étais may mun a imagine le jeune monsieur que j'étais ñu séparé ma ak sama famille mënumaa gis sama doom bi ma koy quitté il avait deux ans mënumaa gis sama famille ñu ne ma doo dugg ci dëkk bi te ma dara ñu lancé mandat d'arrêt international contre man te def reyuma nit ma dara détourné wu ma defuma dara chemise bu ma sol ak tubéy bu ma sol ak ñaari yére laa génne dëkk bi ak ak xànjar boo xam ni maa ngi ko tëye ba léegi denc ko defuma dara léegi nga yaakaar ne man ku ma def loolu dinaa la bàyyi nga nelaw léegi ñoom journaux yu ma doon saaga su mu ne dañ doon dañ doon topp sama samay parent di leen filmer sama yaay dañ ko doon menacer de mort mu changer téléphone ñu fexe ba mu xam téléphone bi ñu fexe ba xam téléphone bi di ko woo di ko menacer ba sama yaay def cancer de l'estomac ñu fekk ci ay tumeurs tellement il l'avait fatigué il lui avait pourri léegi nit ñi waxuñu loolu de. ñooñu doon ma attaqué wax yooyu attaque saaga yi filmer sama papa ñëw di ko saaga ci seen journaux yi masumaa tontu man masumaa tontu masumaa tontu ci loolu et bi ñu gañee dama woo président Wade ñu waxtaan mu ne ma tu garçon intelligent mais li nga ko wax yëpp tamit li ma wax kan de l'étranger à partir du Canada. oui dama ne la. les blocs yi nga daan les lives yi nga daan def. dama la. li nga doon wax yëpp sànq yaa ngi naan campagne dañoo dem campagne yàq deru senegal à l'époque yow loolu nga doon def. non si. non da nga doon attaqué. non des autorités. non da nga doon wax ci ñoom yoo xam ne. non xëy na tamit waxuwul. non non. loo def. non moi je battu. en essayant de donner aux Sénégalais du factuel ci pratique yi nga xam ne dafa doon am je ne dis pas je ne suis pas parfait il m'est arrivé de me réveiller avec trois huissiers qui tapent à ma porte à partir de six heures sept heures huit mënuma liggéey euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu parfois je suis un homme mais moi moi j'ai exercé un métier en écrivant en parlant parce que le défi pour moi dañ ma bëggoon a couper sama dëkk ma ne du fi amee parce que tooñu ma leen defuma leen dara dama seede ci Idrissa ak jaar-jaaram ak Ablaye Wade euh, ñu jël jàpp Idrissa juillet 2004 ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ñu tëj ko sept mois ñu ne ko non lieu defoo dara ñu lancé mandat d'arrêt ci man bi ma ñëwee fii vingt 2013 24 24 décembre 2013 dama dem aéroport di bugg a tukki voyage personnel Mauritanie ma dem ak sama passeport ordinaire ñu jàpp ma mën leen lu ma def ñu ne ma y a un mandat d'arrêt international contre vous booba Macky nekk président donc les gens au fait ce débat là il faut l'arrêter amul sens mais man man man lu ma daj. lu ma daj yéene moo ko sama noonu. waaw mais sauf que moo tax nag. sauf que vingt ans après ou ou ou dix neuf ans après. en fait on revit la même chose. c'est-à-dire il y a des jeunes. non qui estiment que am na ñeneen sax dañuy am na ay. sénégalais yu nekk bitim réew. yu jàpp ne y a un opposant injustement accusé injustement emprisonné. ils se sont inspirés de la méthode Souleymane Jules Diop ñoom tamit ñu ne dañuy dañuy dañuy dénoncer les pratiques euh, délictueuses euh, ils vont mais, parler mais, aux, aux, aux problème n'est pas là après boole ci ñoom tamit ñu ñu indi seen touche non le problème ñu indi seen bokkul le problème n'a jamais été un délit d'opinion le problème n'a jamais été masuta nekk un délit de pensée terewuñu kenn mu xalaat lu muy xalaat terewuñu kenn mu wax lu muy wax man tere nit mu xalaat lu muy xalaat wala mu wax lu muy wax man dund naa ko je suis dans un camp dans le camp présidentiel et pourtant dañ may tel tolérer sama wax may mun dañu toll jamono ju nga xam ne boo génnee ci mbedd bi nga ne mbedd mi nga ne Macky laa àndal ñu ñëw taal sa kër taal sa oto. on l'a fait Abdoulaye Wade. on l'a fait lakk nañu kër metre Babou. lakk nañu kër far ba Senghor attaqué nañu leen. parce que ab Wade la lañu àndaloo mais mais attaqué nañu ay journalistes. saccagé nañu les locaux de l'As et du journal 24 heures ay locaux journalistes moom laa lay wax. Euh, c'était à l'époque 24 heures chrono avec El Malik mais dama ni la des actes insurrectionnels qui menacent la sécurité de l'État moom laa wax ne. c'est répréhensible et c'est condamné, c'est criminel. C'est criminel. C'est répréhensible, c'est criminel. loolu ces gens-là qui doivent répondre de leurs actes à la justice mënuloo ko yemale ak des questions liées à des délits d'opinion wala ñoo xam ne à des restrictions des libertés d'expression du benn c'est pas la même chose li fi xew li ma fi gis mars ak mars deux mille vingt et ak juin c'est autre chose. li fi xew. c'est c'est autre chose. li lépp lu relevé d'acte insurrectionnel ñooñu na yoon def seen liggéey ci ñoom mais am na nit yoo xam ne délit d'opinion la ñu ngi prison. am na si am na xale yoo xam ne y a un caméraman. du si si xaaral rek y a un caméraman donne son exemple de Jotna TV ci épisode u procès Ousmane Sonko comme Mame Mbaye da doon filmer dañ ko jàpp mu ngi kaso y a un jeune yarga si ñu ne moom moo empoisonné Ousmane Sonko amul dossier amul amul procès amul dara mu ngi kaso Maïmouna am na ñooñu aussi ils peuvent sortir. Maïmouna, et peut-être raconter le calvaire le le le le, le même type de calvaire. Maïmouna, que vous avez euh, vécu on, on m'a même euh, rapporté nañ ma sax d'autres cas. beaucoup de cas yoo xam ne euh, ay erreur la. rapporté nañ ma beaucoup de cas euh, liberté nit jàpp ko tëj waxoon naa ko daaw géej bu nu ni Amadou Ba moo tax ma wax ko waxoon naa ko daaw wax ko daaw géej dama ne principe la ci man jàpp ni tëj ko. moom la ñu war a mujjee def. pourtant aujourd'hui c'est la règle hein? non non non c'est pas la règle. le Sénégal a ah, tëj léegi dafa yomb réew mi oh oh Sénégal ci taux de détention carcérale yu gën a faible ci àdduna bi la bokk. non boo ko rapporté à la population. mais mais, mais c'est normal que ça que li xew léegi tamit que ça me choque. may may mun a xam nga dama ni la dama la jëkk ne am na yeneen sax yu ñu ma rapporté maintenant dans de situation comme sa comme lii xew. nga xam ne waxuma ne mosuñ koo dund waaye gën nañ koo dund mu am des attaques contre des civils des biens de personnes privées euh, des édifices le terrain ak même des attaques contre des forces de l'ordre yëkkati mu dóor ko alkaati mu sedd c'est du jamais vu ça waaye léegi bu loolu amee quand on arrête on fait des arrestations préventives lu mel ni nga wax malheureusement mën na cee am li ñu war a ñaan et ça tout le monde doit le souhaiter moo di ne képp ku nga xam ne defuloo dara ñu gaaw wax ne defoo dara nga ñibbi sa kër loolu moo war a am loolu moo mën a am malheureusement ñi ñu jàpp am na ci ñu bari xëy na sax dama jàpp ne moo gën a bari ñoo xam ne. lu ñu def c'est grave c'est répréhensible euh, et c'est puni par les jeux les, les les lois de ce pays les, les lois et règlements de ce pays léegi man d'accord naa ñu ne wuy diw des cas par cas isolés. mais problème mooy ay délit de faciès dafa bëri ci affaire bi. y a des gens délit, ay délit de faciès dafa bëri ci affaire bi y des gens par exemple Cheikh Omar Diagne Karim Xrum Xax ils étaient en conférence de presse man man mille journalistes xaw ma sax la lañ def ñu ñëw jàpp leen ñu ngi ci kaso bi léegi ñu def fa un an. waaw mais may mun a. ak c'est-à-dire ak ñeneen nag ñeneen nag ñeneen ñoo xam ne tey euh, wax je peux comprendre ko situation bi explosive euh, voilà tension bi bari mais quand un état n'a pas le droit jël ay doomam def leen prison sànni leen foofu. fàtte leen. alors que ñooñu ils ont des familles yow dund nga ci dara. xam nga dara ci privation de liberté. may mun a man damay éviter qualifier xam nga lu tax may éviter qualifier euh, parce que lu ma wax rek lu dut bu fekkente ne dafa am ñu deful dara ñu gaaw a ñibbi seen kër leneen lu ma ci wax rek damay wax lu ma xamul parce que maa ngi wax lu ma wóorul. maa ngi wax lu ma wóorul man nekkuma fi woon gis naa yàq gis naa des scènes insupportables contre parfois de personnes investies de l'autorité publique ñu nekk en mission euh, gis naa ko donc mënuma seppi ne diw lii la def wala lii la def parce que xamuma ko parce que xamuma ko ci ñooñu ngay wax duma ci sori mais am na ku ma ci dégg mu wax ne mu mu wax lu garaaw loo xam ne pourtant kenn jàpp ko ci. cest dafa rëcc mu ne su sëriñ si xamoon li Macky Sall nekkee ci pale bi dañ koy dañuy dem génne ko ci pale bi mu ne du ñu yem ci génne ko dañ koy rendi moo wax loolu. Ah, kenn ci ñaar ñooñu nga lim mu ne du ñu yem ci génne ko dañ koy rendi au fait on avait atteint un niveau de violence et il ne faut pas séparer la violence verbale des actes parce que ça c'est une incitation au meurtre wax ne diw dañu koy dem jëli wala nga ne diw waxtu sàngam bakkanam wala sama bakkan wala nga ne diw dañu ko dañu koy dañuy dem génne ko daggate ko ni ñu daggatee woon Samuel Doe mais on avait atteint un niveau de violence boo xam ne ambition politique jaru ko politique jaru ko politique jaru ko ambition politique jaru ko bu loolu demee ba am et comme je l'ai dit l'État agit l'État agi pour se protéger l'État agit pour se sauvegarder mais l'État euh, kii. et dafa am dafa am ñoo xam ni dañuy jaawatle xeex pouvoir ak xeex État dañu ko jaawatle. mais Souleymane État de droit dañ ko war a sauvegarder et l'État doit rester fort loolu ñëpp dañ ci d'accord ñun ñëpp on a vécu ces violences là dans notre chair. on a été traumatisé par ce qui s'est fait ce qui s'est passé à l'université édifice public yi ñu yàq. terre bi ñu jël nga xam ne suñu xaalis ñu ngi koy fay ñu yàq ko BRT bi ñu retardé la mise en circulation tout ça kenn d'accord violence verbale bi kenn d'accord façon waxin bi kenn d'accord kenn d'accordul tellement que man je suis pas je suis tellement pas d'accord que ça dañ lay caricaturer parce que jàpp naa ne réew boo koy wut waroo pousser nit ñi ñu yàq nga ne su ma ñëwee dinaa reconstruire mais ci état de droit justice dañ ko encadrer doxalinam. Mhm. citoyen boo jàppee ne état bu bu justice bu jàppee ne fauté na buñ ko yóbbu prison. Mhm. dañoo war a respecter ses droits les plus élémentaires. d'accord na ñu jël ay nit rek taxañ sànni leen kaso fàtte leen foofu. bu fekkee li ngay wax am na ci kooku wax ne dañ xaw ma nga ne loolu appel au meurtre la mais am na war nañ ko juger mënoon nañ ko def flagrant délit d'accord bu dee defuñ ko flagrant bu ñu instruire xanaa bu 6 mois instruction bi war na jeex war nañ ko juger et ñu ñuy yóbbu affaire bi ba fu nga xam ne ñu jël Ousmane Sonko jël soo numéro 2 euh, jël Fadilou Keita ñëpp ñu sànni leen en prison et muy obstruer la possibilité qui leur est offerte par la Constitution pour que ñoom ñu mën a exercer seen droit en tant que candidature en tant que politique foofu la problème bi nekk. waaw mais may mën mën naa comprendre dans ce qui n'est pas une question nga jël position. non je ne prends pas position. Si, je m'interroge si, si. non, non, sur cette façon de faire interroger je prends pas position. Ah, interroger mais le plus important c'est que la justice soit dite et que ñii deful dara ñu ñibbi seen man bari na ñu may woo. ba ci ay kilifa diine di ma wax diw diw diw diw defuñu dara ñu ngi Jurbel diw diw diw defuñu dara ñu ngi Dakar ay kilifa diine laa la wax euh, léegi nag euh, comme ni ma la ko waxee l'État a été atteint dañu dem fu sori foo xam ni bu ñu passé woon ligne boobu ñu basculer ci leneen parce que euh, bu fekkente ne da nga wax ne démocrate nga d'accord ak nguur d'accord ak ni ñuy doxalee da ngay bàyyi ba élection jot nga wone sa mer léegi nag malheureusement bu jàpp di am des erreurs judiciaires y en a eu des arrestations de gens yuy jàpp en détention après ñu ne defuñu dara y en a avant au Sénégal y en aura sans doute demain malheureusement noonu lay fi doxee man li may ñaan mooy ku fekk koo xam ne defoo dara waroo fanaan benn fan ci kaso mais ku def ak dara ak ku deful dara man xamuma ko et mën naa ne sax yow xamoo ko. non man xaw ma mais dama ne nañu bu ñu bu ñu bu ñu emprisonné nit ñi fàtte leen. na justice daf liggéeyam ñu teel leen a délivrer. waaw xëy na yow da nga xam ay nit nga bëgg ñu teel leen a délivrer bari na ñu ne ci kaso bi. bari nañu de. non bari na ñu ne ci kaso bi lu yàgg a yàgg. mais c'est pas normal. non non c'est pas normal lu yàgg a yàgg ndax les limites de notre système carcéral qu'on doit peut-être réformer xoolaat ko ndax les limites liées aux ressources humaines au ministère de la justice. yàgg nañ ko jàmbat des gens qui restent longtemps sans être jugés après ñu woo leen ne leen defu leen dara donc du ay tur du ay tur du képp ku nga xam ne yaa ngi ci kaso bi da nga am droit ñu juger la am na réew yoo xam ne dañu tëral ne boo toogee juróom-benni weer te attewuñu la dañ la war a bàyyi nga dem il faut que notre justice évolue mais moi je ne je ne veux pas croire que le juge qui prend sa responsabilité mu déglu nit mu ne ko lan nga def kooku wax ko mu ne ko nii la demee nii la demee que celui-là mu xam ne kii deful dara mu jël la responsabilité tëj ko ci kaso bi ça c'est très grave bu fekkee loolu am na c'est très grave mais li nga xam ne moom la ñu war a liggéey war a góorgóorlu et la ça c'est un problème sénégalais c'est pas seulement un problème du régime c'est un problème lié à l'organisation aussi de notre justice sunu justice nu mu tëddee euh, ñu góor góorlu ba loolu mu bañ a amati pas seulement ci événement yi mais ci événement yi dañu ébranler suñuy institution mu dem yegg foo xam ne dafa sori ba nga xam ne euh, y eu des réactions peut-être excessives de part et d'autre. Alors aujourd'hui on est à deux mois de l'élection yéen am ngeen seen candidat <laughs> muy Amadou Ba Karim Wade il est partant Khalifa Sall est partant Pastef ex Pastef euh, xamaguñu <laughs> xamaguñu euh, fu xaw ma. da nga ne ex Pastef ne xamaguñu. <laughs> non euh, en tout cas tout ce qui concerne les membres de ex Pastef xamaguñu fan la mbir mi. di di di di di mujjee euh, est-ce que yow am nga visibilité Karim Wade il est partant il se prépare il a déposé sa caution quitte de son de son amende de 138 milliards. li ma xam tuuti ci droit li ma ci xam ci tuuti boo nee amnistie nañu nit amnistie nañu ay fait. y a pas d'amnistie. bu ñu nee amnistie nañu ay fait. Euh, ci li ma xam bu ñu nee am ne see nañu ay fait fait yooyu normalement dafay effacé wu. sauf qu'il n'y a pas eu d'amnistie. Euh, maintenant bu fekkente ne euh, grâce la leneen la maintenant loi bi dem assemblée nationale nga xam ne daf leen concerner indirectement ou directement. Euh, xaw ma nuñ si àddoo waaye gëmuma ne gëmuma ne euh, bu fekkonte ne Karim dafa am xaalis bu mu war a fay pour ñu jox ko cutus pour mu déposer caution am bu fekkonte ne loi daf ko koy tere dina déposer caution am ñu nangu ko. donc pour yow ce problème là il est réglé et définitivement. oui je crois. de même que le cas Khalifa Sall. am na yeneen ñu nit ñu sulli. am na mais ñi mu concerné la concerné am na ñu wax ne français la am na ñu ay preuve ne il est français ak yooyu loolu beneen débat la. yow lan moo ci sa xalaat parce qu'il faut, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. ah loolu de la liir loolu de la liir loolu de laa liir maintenant il y a d'autres candidats français de l'opposition. ouais. am na. Maïmouna yow xam naa ne lu bari xam nga ko y a d'autres candidats de l'opposition français mais bu ñu ñëwoon tey ne diw diw ak diw français la ñu. coow li jóg coow li jóg ñu ne Macky Macky jógati na. pour bloquer leen dañ leen bëgg a mais ñooñu dinañ yegg si conseil constitutionnel. te ñoom xam nañ ne français lañ. ak ay américain sax. et et malheureusement c'est pas des petits candidats. ñan ak ñan la. ah déedéet c'est pas des petits candidats. mais bu ñu jógoon tey ne leen français la ñu coow jub coow jib yow danga bugguma waxati fi ñu amee ma weer téye ma ci journaux yi nga invité waat ma ne ma Souleymane li nga wax c'est grave lii Souleymane laa ñu amee ci ma ñetti weer. mais wax ñu wax ñu candidat yooyu ñan la. yow xam nga ko xam nga leen. non xam nga léegi yow yaa nekk au cœur de l'État. ma ne. <laughs> Maimouna wax nga candidat yow li doon na sëkk am na candidat yu mag ci opposition yoo xam ne dañoo am nationalité étrangère. di ko jëfandikoo te nag daan tukki ak seen i passeport. di ko voyager di ko <laughs> aéroport de Dakar te ko ñëw. doo leen gis mukk ñu def di rang pour visa wala dara. mais dama yaakaar ne dinañu ma hmm? dama xalaat ne dinañu renoncer. non ñooñu duñu bàyyi de. duñu renoncer ci seen candidature. ci seen ci seen nationalité. duñu bàyyi de non non am euh, euh, au fait renonciation nationalité française lu compliqué la processus bi lu compliqué la lu compliqué la. mais may mun a <laughs> xam nga pour ñëwaat ci lu bëri loo xam ne euh, ñu ngi koy nëpp nëppal. bàyyi ko bañ cee débattre on peut passer 2024 ñu fal président président bi ñëw installé wu mais am na problème yoo xam ne Sénégal réglé gu ko. mooy lan problème boobu ci la bokk. problème mu nationalité bi. ci la bokk. yow lan nga xalaat dañ ci war a tolérant wala dañ ci war a gën a exigeant. waa ouais, mais koo xam ne citoyen citoyen da nga nekk candidat ne dama bëgg a jiite réew ba noppi nga nekk citoyen beneen dëkk. y a un conflit d'intérêt man ngaa jël suba ay information jox ko sa dëkk boobu man ngaa ñëw bu fekkente ne dafa am ay investissement nga privilégié dëkk boobu xam nga ne booy nekk ambassadeur par exemple ambassadeur rek laa wax waxuma chef d'état booy nekk ambassadeur dëkk bi nga dëkk bi nga am nationalité mënoo faa nekk ambassadeur parce que justement day am des conflits d'intérêt président de la république c'est un détenteur de secret d'État bu amee beneen nationalité mën naa jël secret d'État yooyu jox ko dëkk bi ma am nationalité donc euh, pour man et mës nañ ci débattre parce que mbay euh, xam naa ne Abdoulaye Makhtar Diop nga xam ne quand même ñëpp nangu nañ ne xam-xam am na xam-xam Abdoulaye Makhtar Diop position mooy même la double nationalité la la mooy ne la nationalité sénégalaise est exclusive comme nu mu amee Allemagne comme nu mu amee Espagne comme nu mu amee ci yeneen dëkk yi ñu wax ne boo amee citoyenneté sénégalaise d'après li ma dégg Ablaye Matar di ko wax waroo am beneen nationalité loolu toléré nañ ko mais au moins pour certaines fonctions bu ñu xasee jógee une fonction nominative ñu dem dans une fonction élective parce que député bi tamit bu amee double nationalité man naa trahir dëkkam ñu ne un mandat électif muy mandat de maire am na maire yu am. double nationalité yéen xam ngeen yow xam nga. Mm-hmm. am na mm-hmm. maire yu am waaw. Mm-hmm. bon ñu ne un mandat électif quel que soit le niveau buñ la bu la dëkk waa dëkk bi falee amuloo droit am benn citoyenneté ku bëgg a sa citoyenneté mu dem defi leneen mu dem jàngi métier. mais wax nga ci cas Khalifa Sall wax nga ci cas Karim pour yow c'est réglé léegi le cas Ousmane Sonko bi nga xam ne Cour suprême dafa jox dossier bi au TGI de Dakar te boo mooy sul balaa ñuy statuer ñu génn parrainage yi euh, may mën a damay wax loo xam ne waxoon naa ko hmm. mais wax passé na passé nañ débat boobu euh, man yàlla dafa def je discute parfois avec des j'ai des amis qui sont quand même proches de Sonko ñëpp ñëpp xam nañu ko nëppuma ko j'ai même des jeunes frères yoo xam ne dañu jege Sonko ñoom gudda mbuub am na ki muy wax ne sëriñam la sama mag la dama dañu jege jegewante donc man dama jàppoon ne Ousmane euh, mi nga xam ne Euh, bi mu nekkee impôt day dugg bureau par bureau di kaf di reetaan di chahuté di reetaan nit ñi di kaf di saboté di reetaan bureau par bureau bu paree dugg bureau amadu ay collègue dañ doon wax ne euh, au fait ay collègue bu bu Ousmane duggee bureau Amadou ay collègue bu ñu soxlaa bu ñu soxlawaan Amadou dañuy dem doxi seen soxla parce que du génn jullite gentil Ousmane boobu dafa am el yoo xam ne dañu nekk dans la radicalité et de le début j'ai dit que tôt ou tard Ousmane ñaar la mën a def continuer ak lii mu mu am problème mbaa mu arrêté ko day obligé reprendre une partie du travail politique bi mu def loolu moo am malheureusement euh, léegi nag Ousmane boobu bi mu nee du wuyu ji dama wax ay nitam ne leen ne leen ko mu wuyu ji du wuyu ji dafa ni leen ne leen ko mu wuyu ji parce que bu wuyu jiwul lu muy jur day garaaw du yomb faj parce que buñ ko fàtte buñ ko jugee te teewul buñ ko dindee ci liste yi mu duggaat day compliqué parce que commission rek moo war a mën a réunir pour dugalaat ko et commission yi dafa am app délai bu ko bu leen loi bi jox pour ñu mën a réunir pour modifier wala réviser loolu kañ ñëpp xam nañu ko ma dégg ma wax man j'ai j'ai même appelé Ndiaga Sylla ma gis Ndiaga woo ko Ndiaga wax ko ne ko na wuyu ji moo wax ñeneen parce que j'ai des frères quand même là-dedans des gens pour qui j'ai la plus grande estime dama jàpp ne en dehors de dem violer couvre-feu dem ci place boobu bugguma ci dolli dellu la deuxième erreur majeure de Ousmane mooy li mu demul wuyu ji. d'avoir défié la justice. d'avoir défié la justice d'avoir défié les juges d'avoir dit qu'il ne reconnaît pas les juges l'institution judiciaire pourtant ci ñooñu la dellu pour def appel mu dugg ci procédure boo xam ne mënoon na koo éviter boppam bu fekkoon dafa wuyu ci parce que juge yi xëy na dans tous les systèmes il de a des euh, voilà il y a des euh, euh il des problèmes avec certains mais il y a des juges indépendants ah ñoom d'ailleurs li ñu choisir ni c'est la bonne démarche aujourd'hui ñu ngi def une bataille judiciaire waa non ab évoluer na sax Ousmane parce que nee na léegi tactique lay def pour man évoluer na nee na léegi day tactique béy dafa woy mbuus wala léegi ne day tactique mais est-ce que béy dafa woy mbuus maintenant li ma waxoon li ma waxoon dafa am ku ma woo un responsable des droits de l'homme saa yu problème dëkk bi léegi rek dama koy woo ñu waxtaan moo tax yenn yenn idées yi man duma ko génne noonu dama ne ko ci mois de juin ma ne ko tollu nañ fu nga xam ni c'est irréversible Macky woo na Ousmane kaay ñu waxtaan wax naa condition yi nga xam ne ci la Macky woowee usmaan ne ko kaay ñu waxtaan man maa waxtaan ak Barthélémy Diaz waaw ñu waxtaan mu ne ma wax nañu lii di di lii ma ne ko ba président bu wootee du wéet mu ne ma waxtaan nag Ousmane Ousmane d'accord na yow yaa enclenché waxtaan bi entre président ak Barthélemy dama lay expliquer déroulement bi bi ma bi ma bi ma Barthélemy mu waxee loolu mu ne ma depuis six mois maa ngi woote jaloo ëpp na ko sax kenn faalewu ma bi ma pareek Ousmane bi ma pareek Barthélemy dama rendre compte président ma wax ko li ma ci xalaat man li ma xalaatoon mooy dañu waroon a ubbi dialogue Macky woote dialogue ba noppi ne il appelle tout le monde sans exclusive ma yaakaar ne ay niti euh, Sonko dañoo waroonu a profité ci loolu ne ko demal ci dialogue bi nga poser sa problème. comme l'a fait Khalifa l'a fait mënuñoo saafara problème yi xalifa bàyyi sa problème demal wuyu ji bu ñuy regle problème bi assemblée nationale ñu régler ndoo problème yi yëpp il n'a pas répondu tribunal il n'a pas répondu dégg naa ba kenn ci avocat am avocat am yi maître Bathily Samba Demba Ciré Bathily muy saraxu juge bi ne ko dina ñëw mais xëy na nit ñi dégluwuñ ko mais il y a des gens radicaux de toute part y compris avocat bu jóge France nga xam ne dafa dem ba bind règle bind livre ci pour mettre les méthodes de insurrection la théorie du chaos du kooku lu mën a xelal Ousmane ñu dugal ko ci loo xam ne pour man impasse la léegi dañu toll ci impasse bu may wax ne nu nunu waxtaan nu nunu jël temps waxtaan bi ma waxee Euh, bi ma waxee kooku loolu dama ni ko léegi lenn rek a mën a am ci baaxi président de la république ñu ubbiwaat waxtaan mais waxtaan boobu ubbiwaat ko dina jafe bu fekkente ne dañ ko war a tenir dans les prochains mois yi parce que lii des pour élection yi ñëw bariwul. est-ce que yéen am ngeen intéret ci ubbiwaatu waxtaan. donc est-ce que am ngeen intéret ci ubbiwaatu waxtaan boo xam ne mën na aboutir. sur la possibilité d'une candidature de Ousmane Sonko. waaw mais mais mais Maïmouna fii nit rey na fi ju rey nañ fi juge un juge constitutionnel ñu ñu wax ne ñoo ko rey en tout cas ñi ñu juré jugé coupable nit voté loi d'amnistie libéré leen te ñu ñu wax na ñoo ko rey partie bu ñu indexé ciblé ko. terewul mu waxtaan ak du Diouf ñu def gouvernement bi nga may wax ni que diw diw diw diw diw jàpp nañ leen ñu ngi ci kaso bi am na ci ñu def sax tooñ mais état mën na leen a baal parce que ñun on est entre sénégalais ay jeunes mën nañ leen instrumentaliser manipule leen ñu dem def loo xam ne waruñ koo def. mais le sens de la waxuma waxuma ñi def crime de sang. wax comprendre sama dama ne. comprendre naa sa question est que di ngeen def loolu est-ce que est-ce que yéen na leen parce que aujourd'hui l'absence de Ousmane Sonko du processus euh, sa présence dana doon anéantir vos vos vos chance dañu wante. anéantir nga wax de. da waaw may mun a nag may mun léeg-léeg da wax. <laughs> en tout cas bu Ousmane Sonko teewee. seen wax jooju ngeen wax naan da ngeen di gagner l'élection au premier tour yaa ngi juum nag parce que dama dama dama wax lu mel noonu ah. ñu soppi sama wax <laughs> non ma ne bu usmaan Sonko man waa déglul rek bu Ousmane Sonko yaa ngi juum non bu Ousmane Sonko teewee waa déglul rek yaa ngi juum ah lu tax maa ngi juum dama ci wax ñu soppi sama wax <laughs> nañ ko soppee gis nga waa opposition bi laa wax ne ñoo gën a bañ Ousmane Sonko génn waaw te muy dëgg bon pas tout le monde ah am na ñoo xam ne dégg nga leen. pas tout le monde aussi. am na xam ne dégg nga leen ci. ay mais pas tout le monde nëbbuñu ko. man kañ waxuma waa opposition yëpp parce que ils son plus de deux cents waaye am ñoo xam ne jàpp nañ ne c'est leur chance opposition bi laa wax ñooñu fi mu ne dëgg la loolu arrangé wu leen arrangé wu leen yéen tamit. Euh, ñun nag ñun gëm nañu ne les Sénégalais soxla nañu un nom d'État expérimenté soxla nañu un nom bu am expérience gouvernementale et alhamdulillah je suis moi heureux que. mu am ñetti ancien premier ministre yoo xam ne dañu bokk ci joŋante bi. muy Aminata Touré Amadou Ba Mahammed Boun Abdallah Dionne. waaw ak a Seck. boo ko fàtte Idrissa Seck. man ci opposition bi sax laa wax am na ñetti ancien premier ministre donc am nañu expérience d'état am nañu expérience gouvernementale ma yaakaar ne sénégalais ku leen woo ci fitna ne leen solution bi mooy fitna. génne fitna kooku bés bu jëlee réew mi ci fitna la koy jël ci fitna la koy installé ci fitna la koy installé. Idrissa Seck suñu ko dégguñu ko. Euh, mu ngi liggéey de. mu ngi liggéey ci suuf la wax mais jàpp nga ne am na chance. Euh, xam nga jàpp nga ne cette fas ci ce sera la bonne. xam nga dañuy ce sera sa troisième présidentielle. xam nga en politique may mun a on ne meurt jamais euh, Idrissa pexeem ak xam-xamam ak talent politique am moo tax ba jarul a xeeb. mën na bett ñëpp. waaw jarul a xeeb sa jarul a xeeb jarul a xeeb euh, maintenant ñun pour revenir à nous ñun mais. nous faisons face à des adversaires expérimentés heureusement que ñaar ñi ci mouvance présidentielle la ñu bokk maanaam kenn ki nee na moom xaritu Macky la Macky frère am bëggul a xuloog Macky kan bun jon Idrissa Seck Idrissa Seck keneen ki tamit nee na moom Macky la àndal waaye problème bi mooy Macky présenté wul donc moom Macky la moom loolu tax muy présenté wu waaye makki la àndal waaye waaye il est loyal à Macky mooy Mohamed Dione donc. Aminata Touré lu mu wax. suma sœur euh, dégguma mu wax ci loolu de. Aminata Touré àndul ak yéen mu ngi def son bonhomme de chemin auprès des des membres de de de l'opposition. maa ngi koy ñaanal tamit. loo koy ñaanal. dama koy ñaanal dama koy ñaanal rek. lu mu lu mu ci jublu aussi yàlla dimbali ko ci bu fekkee looloo gën ci Sénégal. mais yéen. Boumdione. mais Berdaaraam. waaw Aly Ngouille Berdaaraam. Mame Boye malgré euh, ñi koy annoncé euh, ñiy annoncé son retour mu ngi ci mbiru boppam mu ngi continuer yoonam. Mm-hmm. du électorat en mois waa xam nga lu tax président tànn Amadou ci sama xel bu gàtt. Mm. président dafa tànn Amadou parce que dafa dégg ñu bokkut ci APR ñu bokkut ci Bennoo ñu ne ah xanaa ñun dey yaakaar nañ ne Amadou ngeen di tànn bu ngeen tànnee Amadou day ñun dinañ ko jàppale y compris ñu bokk ci Pastef donc li Ablaye Sow di wax naan il y a des membres de l'opposition qui vont rejoindre le bloc présidentiel dëgg la. dégguma bi ko Ablaye fekk euh, au fait déglu ma Ablaye démb nee nañ ma ñëw na. non waxee ko fii démb sax. ah euh, grand jury la ko waxee. waaw waaw. dëgg la. dina bari opposition bi actuellement ay responsable opposition bi yoo xam ne dinañ fekki Amadou. des responsables d'envergure. donc donc Amadou waxuma ñu amul base de ma ñu amul. électoral waxuma 0,00 di nga ko gis ci Dakar. 1 pour cent bi de. di nga ko gis ci Dakar gis ko feneen donc. ah xaar xaar xaar Ndakaaru fii. waaw un opposant d'envergure. qui enfin, va rejoindre des Amadou responsables. des responsables de l'opposition d'envergure qui vont rejoindre le candidat de la majorité présidentielle. ah bon. Mm. ah je sens le mm. euh, mais li ci am solo. moo di ne président dafa dégg ne Amadou peut rassembler au-delà de Benno au-delà de la l'APR am na ñu bari ñoo xam ne dañ doon wax ne bu bu fekkee Amadou ngeen tànn dinañ ko jàppale lii président dégg na ko lii nit ñi wax nañu ko parce que Amadou il a cette particularité et lii du au fait du lu may euh, révéler président wax na ko il il a dit Amadou peut parler à tout le monde Macky président il a dit Amadou peut parler à tout le monde. il est transversal. oui Amadou peut à tout le monde. Euh, tey tey damay waxtaan ak nit mu ne ma mu may ñuy waxtaan ci waxuñu woon sax ci Amadou ci Sonko lañ doon wax mu ne ma waaw buñ jullee. mook Amadou julli waxtaan mu ne ma le DGID avant Amadou il dure waa impôt ñu ngi dégg li may wax mën nañ koo seede ñu ne ma il était dur bi ñoom Sonko dañuy ñëw def ay brassard rouge waaye du fi amee xulook ñoom mu ne ma mais quand Amadou est venu il a tout le monde ba Sonko mujj nekk xaritam nga xam ne bureau Amadou lay waxtaanee donc Amadou a cette capacité ba noppi am de bonnes relation xëy na loolu aussi xaw na koo sànq. cest am de bonnes relation avec les jeunes de Pastef yu nekkoon impôt et domaine parce que moo leen jàngal ENAM moo jàngal Sonko. Biram Souley. ñoom Biram Souley moo leen jàngal donc xam na leen nekk nañu ay étudians am donc looloo tax ñu jàpp ne. avec les qualités humaines que je viens d'énoncer parce que nag Maïmouna. Hmm, tu as effectué un retour en zone. terrible <laughs> non non non non non non li ma lay wax nii. ci laa laa nag yaa ngi laa tu vends le candidat. non non xam nga man lu ma soxal. Hmm. mais loolu je ne reviendrai je ne au fait je le dis et je le politique politique dafa metti xeex la. pouvoir doo toog mu fekk si la dangay jóg fekk nit ñi dangay jóg xeex dangay jóg taxaw yàlla nguur bu la koy jox dafay fekk nga taxaw tàllal ko sa loxo nguur kenn du ko ramasser kenn du ko for kenn du toog ci fauteuil ci salon mu fekk si la amul moom laa wax sunu candidat il faut mu jóg xeex il faut mu jiite xeex bi nekk général te dina metti dinañ ko attaqué dinañ dal ci kawam dinañ ko waxal lu ne dégg nga fan yii ñu ngi commencé dëkkul Sénégal du sénégalais du lii du la. un débat dégueulasse. dégueulasse. c'est même ñu donc donc may mun na nag euh, man dama yaakaar ne sama camp dañu maa war a sant. <laughs> ñu lay xas. waaw ah. maa war a sant man. man xam naa li ci politique bu politique doon diine ma doon ci muxaddam bu mag wala xalif général euh, li ma wax xam naa fu ma ko waxee xam naa lu tax ma wax ko yéena lu bari waaye yéena yi tamit ñu nga xam ne mën nañoo mën nañoo dellu ci ñoom mën naa dellu ci ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu dellu si ràññee naa leen xàmme naa leen gis naa leen répertorier naa leen parce que ku ci ne xoole ñu kontaanu woon yëpp woon nañu ne ma man lii moo tax ma mer lii tax ma mer Souleymane merci donc yow ñi ma attaqué nga gis waaye xoolal sama téléphone bi ñu feeñ ñi ma woo ne ma jërëjëf lii moom lañu xalaat waaye ñemeñ koo wax mais bëgg Amadou moo tax may mu ne dama wax Amadou ne ko Amadou mu ne ma ma ne ko Amadou ñun bennoo bokk yaakaar lanu la tudd dañu jël ñun ñëpp suñu yaakaar muy yow muy kenn muy yow dafa diis moo tax foog nga jóg moo tax foog nga yaa ndigg moo tax foog nga tëddee jaaxaanaay moo tax gis nga 2019 moo wax la ko Macky Sall daf ko préparer ay weer chaque jour mu def di kilomètres de course di daw xoolal daf ko préparer ay weer ñaari at. ah il a fait une campagne extraordinaire. di course. waaw. Ah. gis nga bi ñuy dugg Fatick. <laughs> loolu daf ko préparer. ay daw la ci non juróom daanu. <laughs> ay daw la fa duggee léegi nag man suma waa ji suma frère la. yàlla xam na ni man kenn bënu gënumaa bëgg Amadou xam na ko. fan nga bëgg Amadou ba dugg daw. suma frère la non bu fan. course fan lay amee man su ma xoolee su ma xoolee loolu. Euh. gis nga bi mois de juin. dama wax ne candidat kenn du ko defar ci juróom benn weer. on est il te bi président ne bàyyi na ak bi muy désigné kenn ñetti weer dox na ci ñu perdraat ay mois léegi sunu candidat c'est le choix du président tànneef bi dem nañu ba nit ñi naan lu muy xaar lu muy xaar lu muy xaar lu muy xaar finalement def na ko am na ba noppi. léegi nag le temps qui nous reste fii ak présidentielle amul ñetti weer. mais dernière question Souleymane Jules xalaatoo ne président jot na mu nekk en retrait mu bàyyi seen candidat bi mu nekk ci kanam parce que président aujourd'hui c'est une personnalité politique achevée bu nekke continuer tournée mi il va faire une autre tournée en décembre il laisse pas de l'espace et de la place au candidat parce que tout le monde a les sur Macky et dans votre parti tout le monde se croit obligé devant Macky Sall de lui dire ñun bu ñu toppee Amadou yow yaa tax. waaw mais xalaata loolu day desservir seen candidat. mais mais c'est moins des c'est moins des critiques au président que euh, personnalité Amadou Ba. c'est-à-dire. ñun dañu am candidat boo xam ne il est pétri de qualité macha allah euh, nit ku baax la. Euh, nit ku jullite la nit ku am yërmande la mais surtout nit ku am respect la ci nit ñi ñun ñëpp meruñu noonu ah ñun on a parmi ñoo xam ne xeex rek lañu man dóorante rek la ñu man politique nag y a tout le monde. mais Amadou c'est ne décrit pas Amadou Ba comme un ange de. un ange du un fi mu yegg si fii. ne le décrit pas comme un ange. xam nga il est politique. et très politique xam nga xam nga Maymuna euh, dafa am yoo xam ni. yàlla la. waaw mais. Euh, maintenant les choses ne lui ne lui pas tombées du ciel ah. waaw mais pour ñëw ci sa question ñun suñu candidat yàlla dafa def ne haut fonctionnaire la c'est un commis de l'État et dafa am ñaari valeur yoo xam ne c'est central chez un agent publique malheureusement mais chez un agent publique de son niveau. mooy benn la subordination mooy sa autorité nga nangul ko euh, ñaare bi mooy la loyauté Amadou boo seetloo loolu rek lay wax. mais est-ce que le président moo ko war a mettre à l'aise aussi. déedéet. si. déedéet Amadou dafa jàpp ne. tant que président de la république mooy président de la république moom place am mooy trois mètres ci ginnaaw. mais sauf qu'il va à une présidentielle. maintenant il a besoin d'être devant. xam nga yaa may fekk si. non fekk su ma la xam nga yaa may fekk si waxuma li nga wax. dama ne on va à une présidentielle président moo war a def recul. il doit être devant. teg candidat bi ci kanam bàyyi ko mu exploser. c'est pas le président qui gêne le premier ministre. Euh, dama jàpp ne et encore une fois moi je suis en train de voir une mutation chez Amadou je sais qu'Amadou euh, est au fait Amadou da dul wax da dul wax da dul wax en général bu la expliquer nga comprendre lii moo tax lii lii moo tax lii lii moo tax lii lii moo tax lii mais essentiellement euh, dama euh, je suis en train de voir loo xam ne moo taxoon ma wax et moom laa bëggoon ci Amadou ndax bëgg Amadou gagné parce que mooy suñu candidat mooy suñu yaakaar mooy mu def une mutation du haut fonctionnaire qu'il est vers un homme politique qu'il doit être et qu'il doit rester parce que bu buggee yore nguur ba noppi téye ko il faut mu def ce mouvement cette mutation du ñëpp ñoo koy réussir du ñëpp ñoo koy réussir a Mais euh, oui, moi je pense que il doit s'affirmer davantage aux côtés du président de la République. Mais quand, me, me révéler... quand c'est un fonctionnaire, quand, il a les qualités d'un fonctionnaire loyal, respectueux de l'ordre hiérarchique, on est à deux mois de l'élection, président Mokorba, il y en Non, le président... président Parce que tant que président Mungiteo, peut-être que lui... du du du ko du ko jéggi alors que aujourd'hui il doit être devant aujourd'hui on ne devrait parler que de Amadou Ba et on va garder beaucoup de nostalgie pour Macky Sall bien ah. sûr. ñu parler que de Amadou Ba dina jafe de. <laughs> ah Maïmouna seen camp ñu seen camp keroog man keroog je m'attendais à Fatick à Kaffrine que ku wax ci Macky Sall pour cent. 40 pour cent yi nga jagleel ko Amadou tagg ko mais seen gars yi ñemewuñu gëmuñu yàlla. waaw déedéet bu lax loolu. mais si déedéet ah ñemewuñu ngay wax wax non non non non non. non non non non c'est-à-dire que. Euh, da ngay gis ku wax ba jeexal du tudd premier ministre. waaw ko que aujourd'hui yéen ngeen dem ci zone yoo xam ne premier ministre daanu fa daan dem mais premier mi premier ministre la ñu waroon wax. je aussi à ce que président introniser le premier ministre. ne leen ah seen candidat baa ngi nii. am na qualité yi mel na nii woteel leen ko. moom laa fi nar a bàyyi. moom moo nar jël sama lekk. waa dafa am relation. mais loolu gisuma ko dafa am relation ak militant Macky ak militant ci Ablaye Wade rek ko gisoon ak ay militant c'est-à-dire que c'est un rapport fusionnel entre Macky et ses militants bi mu demee Fatick justement boo seetloo ñi dafay tudd nit ne dóoroon nañu bopp bi xaroon nañ bopp bi ndax man tudd nit ne jàppoon nañ ko kaso ndax man euh, cest à relation yooyu moom moo naqaree defeer et je crois que même su ki nekkatul président. c'est le président qui a la clé de. yaa ngi rejoindre. même su même su nekkatul président loolu dina continuer mais loolu Amadou Ba xam na ko dañuy doog a suñu candidat et ce que j'ai di malheureusement qui a été mal compris ci loolu lay participer euh, quand de la team building euh, dafa am phase boo xam ne ci ngay choisir. dafa am phase boo xam ne ci lañu ci lay xew lu ñuy woowee storming c'est-à-dire que il faut mu am période boo xam ne. de turbulence de turbulence après mu am phase boo xam ne mooy la phase de norming ñu réajuster ku ne xam sa place ñu taxaw dem mais loolu bala muy am dafay am de mois moment de flottement mënta ñàkk léegi bi ci mujje phase bi ci mujje mooy la phase de performing et nous croyons que président ak candidat bi dinañu réussir une symbiose et on a fait des propositions pour ça pour que ñu xam pendant la campagne fan la président di insister fan la candidat bi di insister fan la ñu war a séparer les deux les ak fan la ñu war a daje ñoom ñaar merci beaucoup on est en train de travailler sur ça ça va sortir et je pense qu'on va y arriver maintenant pendant qu'on y arrive il faut léeg-léeg mu am parole yu jàdd gauche parole yu jàdd droite mais il faut euh, assumer et accepter de mon point de vue hein, et je crois que loolu accepter nañ ma ko une certaine liberté de ton man philosophe là de formation c'est un grand défaut chez moi merci euh, peut-être que vous allez être candidat euh, directeur de campagne de de Amadou ah. <laughs> Ah. non non non non ça ne vous intéresse pas non te ngaa bañ a non non non d'accord merci beaucoup non mais mais su ma laajee. su bëgg soxlaa sama xalaat dinaa ko ko jox. qui qui est le parfait directeur de campagne pour un candidat de la majorité. le président de la République et celui à qui il aura délégué cette mission. et c'est quoi son profil. et qui travaillera avec. xam naa doo joxe tur mais c'est quoi le profil d'un parfait directeur de campagne pour un candidat. il doit avoir euh, il doit avoir deux qualités managériales. il doit avoir un être un grand coordonnateur parce que direction de campagne c'est la coordination entre d'autres directions logistique euh, programme propagande média euh, yooyu la ñuy dajale directeur de campagne bi chapeauté ko après il y a un poste j'ai j'en ai parlé en tout cas mooy le poste de chief stratégiste nga xam ne day séparé ak directeur de campagne bi te stratégie rek lay wax nañu def lii nii la ñu ko war a doxalee benn lay doon wala on l'a fait en 2019. et ça et ça parfaitement mais c'était une et ça a parfaitement marché c'était une team. oui mais il y avait deux personnes essentielles. yow ak Aminata man ak Aminata. voilà on a bien travaillé en symbiose et ça a donné quelque chose de bon. Euh, une petite digression parfois doo jàpp ne. Euh, bennon l'appel a été injuste avec Aminata Touré man j'ai vu euh. Aminata Touré à l'œuvre je vous ai vu à l'œuvre lors de la campagne de 2019 gis naa leen gis naa ndaw si euh, mu ñëw conduire seen liste aux législatives de la République mm je crois pas que problème bi ko opposé ak ak Mimi euh, c'est un problème, c'est lié au travail, au service qu'elle a rendu et qu'on aurait nié. Non. mais dañ ko nié. non non non. la la non, la preuve la preuve c'est mag mi ñoo àndoon liggéey man bi ñu paree luñ lu ma def. dañ laa exilé. damaa génn dëkk bi suma sœur lu mu def dañ la exilé suma sœur lu mu def. ah suma sœur lu mu def. kan Aminta. dañ ko dénk institution. waaw. est ñu dàq ko. dañ ko dénk institution. waaw mais un an ñu dax ko maintenant ci diggante bi. te balaa ñu ko koy dénk sax yàgg na. gis nga après les élections dañ ko ko dénk mu def euh, même pas un an ñu dàq ko remplacer ko par le chef de l'opposition bi mu daan jàkkaar lool euh, Maymuna mu dellu siwaat xaaral rek mu dellu siwaat mbir yi jaaraat ci yoon mu toog porter la combat contre Sonko ko l'époque seen gars yi ñenn ñi dañ doon ñu bari dañ doon hésiter demal leen législative ngeen pare poste premier euh, poste président assemblée nationale ñu xañ ko ko euh, rabale ko au rang de député simple. j'ai beaucoup regretté période boobu man euh, président Macky bi mi mu nekkee gouvernement yi mu génnee gouvernement ak fu mën a dem buy wax ak man ta sœur la may wax bëri na loo xam ne Mimi mi ngi may déglu man maa ko dox seen diggante ñoom ñaar quand il y a des difficultés parce que y a eu parfois des difficultés bi mu nekkee ministre de la justice il y a eu des difficultés bi mu nekkee premier ministre il eu des difficultés en réalité il toujours eu des difficultés ils ont réussi plus ou moins bien gérer difficultés yooyu problème yooyu seen diggante ñoom ñaar ñoom ñaar maintenant moi je le regrette Aminata Touré est une femme de valeur Aminata Touré est une femme de principe loolu su ma ko waxul je suis xaw ma. mais jàpp na injustice am na. maintenant. qu'on n'a pas été reconnaissant non non, de l'injustice elle a tourné la page le président a tourné la page dans leur relation ci moment boobu e rien ne dit que duñu retrouver wu. da nga ci am espoir. oui bien sûr. d'accord moi je parle à ma sœur au fait Mimi tàng na ni ci biti mais elle a et au fait Mimi du denc dara Mimi du denc maintenant. Mimi mun na retrouver Amadou Ba. mais pourquoi. xam nga damay wax fan yële ma joxe benn exemple. waaw ah, bu bu retrouver Sonko de mën na retrouver Amadou Ba ndax moo ko Amadou Ba tamit jotewuñu dara. Ah, voilà jotewuñu jotewuñu euh, may mën a politique lu ne mën naa ne damay fàttali keroog tiir yi kër euh, tiir yi ñu tiire Ablaye Wade bi ñuy bi muy romb kër Mbaye Jacques Diop kalobule yi di jooy ne ko duggal ci oto bi mu bañ laissez oto bi jàll kalub yi bu lay dellu taal kër mbay Jacques saccagé ko ba noppi dem kër frère am saccagé ko ñu teg ci fukki fan Ablaye Wade yëkkati loxo mbay Jacques <laughs> ñu ànd Ablaye pare gagné mu jël institution bu importante CREAS jox ko ko politique c'est malheureusement comme ça mais heureusement heureusement maa ngi joxe keroog euh, d'autres il y a d'autres éléments au euh, moo tax il ne faut jamais jurer de rien man xam nga xam nga lu may ñaan Ousmane fi mu ne euh, su ma su ma ko mënoon a seeti jox ko ay conseil dinaa ko seeti jox ko ay conseil mais jëlal nga dem seeti xëy na fi mu ne fi mu ne yàlla moo ko dogal muy nattu bu rëy bu metti mais jàngukaay la hmm. waaw jàngukaay la mën na fa jànge lu bari bi ci gën a tuuti bi ma bi ki ma semble évident mooy un recul suffisant ak aussi mu calmé wu mu calmé merci beaucoup Souleymane Jules Diop waxtaan bi yaatu na lool <laughs> xam nga euh, dinaa la bu ñu génnee ci il faut ma woo la ñu def rétropédalage ñu revivre euh, l'époque Wade l'époque Diouf. ak l'époque Macky et puis ñu établir des de des de des ponts d'analyse euh, entre les trois époques. en tout cas merci. a été une discussion très enrichissante. et très relaxe. <laughs> ce dernier mot. oui oui mais euh, écoute euh, dama lay féliciter yow sama xarit nga sama sœur nga gis naa fi nga jógee ak fi nga ne tey nekk entrepreneur de presse lu difficile la. Mm. surtout nag boo dee jigéen. Euh, yàlla dimbali na la ba nga am place parce que place bi tamit xeex la woon de. Mm-hmm. voilà yaa ngi sa émission yaa ngi imposé wu sa télé yaa ngi góorgóorlu et difficulté yi ngay dund aussi man xam naa ci tuuti may mun a donc euh, nga gën a góor loo rek laa lay wax et puis di di balu ak <laughs> spectateurs yi <laughs> di balu ak spectateurs yi. Euh, politique nii la waxtaan nii la. voilà il faut qu'on s'exprime et puis malheureusement. parfois en parlant mal et parfois en disant mal mais c'est la vie voilà. merci beaucoup euh, Souleymane Jules Diop il est ambassadeur euh, délégué permanent du Sénégal auprès de auprès de l'UNESCO euh, il a été ancien ministre euh, ancien secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur ancien secrétaire d'État en charge du euh, du du PUDC journaliste communicant écrivain auteur alors plusieurs casquettes à la fois euh, Souleymane Diop qu'on va sans doute retrouver euh, très souvent xam naa ne campagne bi moom dina euh, kenn du ko ko kenn du ko ko nettali alors lundi laa leen di retrouver incha allah si tout se passe bien parce que aussi on est une chaîne d'infotainment euh, voilà nos rendez-vous dépendent euh, de la consistance de l'actualité sinon je vais vous retrouver lundi euh, et puis je vais vers week-end bi dinañu préciser la les, les invités en tout cas sachez que Ahmed Aïdara euh, semaine prochaine moom ça va beaucoup taper sur la majorité présidentielle parce que ay opposants laa ci bëri Ahmed Aïdara euh, Tahirou Sarr euh, peut-être Serigne Mboup euh, Cheikh Bamba Dièye Euh, et bien d'autres euh, personnalités politiques yoo xam ne euh, daañu sekk mais dinaa ci jéem a greffer un ministre qui gère par exemple ministre de l'agriculture bëgg naa ko bëgg naa ko invité ñu waxtaan un peu ci ci campagne bi wala bokk un député de l'Assemblée nationale ku mel ni mon ami Abdou Mbodj Abdou Mbow ou bien un député un parlementaire de l'opposition ñu waxtaanee la session de l'Assemblée nationale qui a été clôturée ce soir merci de nous avoir suivis la 7TV Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Au revoir.